أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العالمين الحمد لله رب العالمين الله bokk taalibe Touba TV télé bi lëkkale askan wi tey jëfe ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaqa muy waxtasimo bi hablillahi jamian wala tafarraqu mbokk yi dellusiwaat nañ ci seen émission bi tudd siratu saalihiina wa saalihaat tey nag ñu am ay gan yu tedd yu màgg di wajal bis yu tedd yo xame ni day melni ñaari bis te lepp di benn bis moy lepp di Cheikhul Khadim lepp di Serigne Touba mu melni ñaari bis yépp dafa dajé kenn ko xame ni bis ba sabab ba yaw la waye sabab ba serigne Touba la kon lepp serigne Touba la ñu ngi ñaanal bu baax Cheikh mohammedul muntaka mi nga xamni ku ne xam na ni mi ngi wat nit ñi ci delo wat nit ñi ci kennal suñu waye delo wat nit ñi ci gëm yalla ak iman ju ma sekk ndax ku ne gis na bayiti Serigne Touba yooyu mu joxe lu am solo la mooy lu am rek ñu xam ni suñu borom subhanahu wa taala moo ko amal ku jàpp ni lenn dina am lu dul képp ku jàpp ni kenn dina amal dara lu dul yàlla rek kooku pertement dikkal na ko kon nag yàlla ñu yàlla defal ñu am imaan bu dëgër ci suñu boroom te gëm Sëñ Touba te di ko liggéeyal ñu ngi nuyu bu baax Serigne Ahmadul Mokhtar. mi nga xamni mo nekkal Cheikh Mouhamadul mustapha ci kaw suuf di daru Daaru euh di ku bax di liggeyar kon Serigne Touba di nit ku yiw di nit ku bax di ziare jëwriñam yépp Serigne abdou rahman Serigne Cheikh Madina ziare senou taw sen djewri ñom ñëpp Serigne mustapha mohammed nubouji di nuyu mboolem axfaati Cheikh mustapha yépp ñu ngi len di ziare ak cheikh yi aju ci kër gi yépp di nuyu nak ki nga xamni moo fi nekkal ka sëriñ tubaa wóolu woon ka sëriñ tubaa doyloo woon waaye ka sëriñ tubaa dénkoon boppam ca ba muy delluwaat ci suñu boroom kooku mooy sëriñ Mbàkke Buso delluwaayu xam-xam ci yoon wi ko fi nekkal di sëriñ Omar ibnu sëriñ Abdul Xaadir Buso ibnu sëriñ Mbàkke Buso di sëriñ Omar borom liggéeyu mag yi borom ndam lu rëy li ci gédde yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko ci madrasa bu mag boobu mu defal sëriñ Mbàkke ci armeer yooyu muy miire waaye ci yeneen sëmb yi muy xalaat di ko ànd ak njaboot gi waaye njàmbaar nag du amee ña topp sa ginnaaw jàmbaar lañ waaye taalibe yi jàmbaar lañ kon nag Serigne Omar yàlla na yàlla guddal fanam ak mbooleem jëwriñam yépp Serigne Moussa Baaxeer Serigne Guédé Serigne Modou Mamoun Imaam ak mbooleem axfaati Serigne Mbàkke Buso yépp euh, di ziyaare bu baax ñi nga xam ne tey ñoo teew ci jotaay bi ñu war a dem Daaru Xuddoos waaye ñëw Guédé euh, ci njiital imaam Serigne Cheikh Balla Gueye nga xam ni tey moom lii moom sëñ bu so képp a ko ko jaral moom ndax euh, moo waxtaan nii ba noppi <laughs> waaye moom ku ne xam na ni amul sa amul sago ci Serigne Mbàkke Bousso gëm ko xam ko loolu nag yaakaar naa ni ku ko def noppal nga sëñ Tubaa ku roy sëñ bu so noppal nga sëñ Tubaa ku ko gëm noppal nga sëñ Tubaa ndax moom kat wax nañ ni moom rek la sëñ Tubaa waxoon ni sañ ngaa génne nit ci yoon wi waaye sañ ngaa dugal nit ci yoon wi hmm. kon kooku yaakaar naa ni euh, sëriñ bi teg na ko foo xam ni kawe na lool euh, mu feggoog sëriñ Modou Mamoun Diop mi ñëpp xam ci euh, liggéeyub Cheikh Moustapha waaye mi ñëpp xam ci liggéeyub sëriñ Cheikh Gaynde faatma mi ñëpp xam ci Daaru Xuddoos ci muy jotalaakon bu am solo ci liggéey bi feggoog suñu mag suñu xarit Serigne Abdoulaye Diop Bichri euh, nga xam ni moom itam ku nekk gis na ni muy waxtaanee ci Serigne Mbacke bu su waxtu wu nekk ndax damay faral di wax ni ku bëgg Sëñ Tuubaa da nga bëgg njabootam gépp waaye ku gëm sëñ tubaa da nga gëm sëriñ Mbàkke Bousso nag te bëgg ko ndax day lépp sëñ tubaa sëñ tubaa di léppam euh, di nuyu bu baax sëriñ Mori Talla euh, di feggoog sëriñ Ablaye Diop Bichri moom itam euh, bokk ci njabootu ahibayil qadim moom Cheikh Moustapha Mouhamed mi nga xam ni ku dem nuboo ji fekk ko fa dina xam ni yaakaar ci Cheikh Moustapha amoon ba sanc nuboo ji sëriñ Cheikh di ko dundal sëriñ Mbàkke di ko dundal seen yéene yépp sëñ Moustapha àggale na ko ci nuboo ji euh, ba sémb fa yéene yoo xam ne nag tey duñ dellusiwaatoon yaakaar naa di soppi aw toogin ci nuboo ji yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko ak ay rakkam yépp sëñ Ahmad Cheikh Mouhamadou Lamine mit muy jëwriñam ci Ndakaaru sëñ Baara ak mbooleem njabootu Daaru Xuddoos képp mu mel ni kon euh, sëriñ ab Diop Bichri da ngay nuyoo sëñ Mourou Mamoun Diop nuyoo sëriñ Mouri Tall nuyoo sëñ imam Cheikh Awa Balla Gaye nak mom day nuyo bolé ko tijji jotay bi nak ci Serigne Mbacke euh ndax mom moy suñu kilifa di suñu wajur te jot am amuñu sañ-sañu téeku lu yàgg serigne Mbacke jalal nako ba fajar wayé nak euh ku ne xam na ni lulul doy mom lo ci am rek mu doy le sëkk serigne Ablaye ahlan wa sahlan wa marhaban bikum a'udhu billahi minash alsheytani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhadil amin sayidina wa nabiyina muhammadin makin wa ala alihi wa sahabatihi alguril mayamin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yu tedd yi ni topp ci àdduna bi yépp nu ngi leen di boole nuyoo bi nu yàlla boole ñun njaboot islam gépp dinu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi ngi jital ci kaddu yi sante yalla sunu borom bu baax ci namu yelle julli ci yanantu bi alayhi wa salam di ñaan salatu ak salamu ci mom ak ci wa kërëm ak ci ay andandom ba aksi ci jëwrinam ba katam ba maulana cheikhul khadim mi nga xamni moy sunu sunu way di ñaanal jëwrinam jiko togal di serigne muntaka bashir yalla yagal ko lol ci kanamu njaboot gi te doli ko wër diko ñaanal naka nonu rakam yépp jaar ci jëwrinam sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Ahad nuyu tam sëriñ ndam Atta nuyu sëñ Ahmadul Mokhtar mi nga xam ni moo toog toogaayal Cheikh Moustapha al di ziyaare njaboot gi yëpp di nuyu xalifa bi nga xam ni mooy xalifa sëriñ Mbacke Bousso di sëriñ Omar Bousso di ko ziyaara bu baax di ko ñaanal di nuyu kër gi ak waa kër gi yëpp di nuyu jataay bi jiital ci sunu kilifa gu mag gi ñu toogal muy imaam Cheikh Awa Balla Gueye di ko ñaanal mucc ak fan wu gudd ndax marjan la maanaam dellukaay la ci ndaw ñi gëstu ci xam-xam yépp ak a waxtaane sëriñ bi ñépp ay dellu ci moom di jànge ci moom di ko sagoo di ko tiitaroo yàlla na yàlla sàmm ko te yàggal lool taxawaayam ci kër Cheikhul Khadim di nuyu bu baax sunu soppe sëriñ Modou Mamoun Diop di mbokk tam ñu bokk ca kokki muy nit ku baax di boroom xam-xam am taxawaay lool ci kër sëñ Moustapha al Karim yàlla yàlla sàmm ko di ko yóbbante nuyoo mook Serigne Mori Talla moom it di sunu xarit defloo nañu ay conférence miraaran ci njabootu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ni moo toog tey jataayu Serigne Mouhamed Mbacke sëñ Mbacke soxna loo nu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal ñaanal rakkam sëñ baara suñu xarit di la nuyu Seex Anta bu baax a baax di la sant di la gërëm bu baax ci taxawaay bi nuyu njaboot gi fi teew yépp waa kër sëñ moodu mustafaa ngi fi teew ci plateau bi waaye njabootu sëñ Mbàkke Buso fi teew jotal nuyoo ci sëñ Abo Sàll Baay Faalam boobu ci pikin ku ne xam taxawaayam ci kër sëñ Mbàkke Buso waaye nuyu tam imaam bii nga xam ni day deretu sëñ Mbàkke Buso di boroom xam lépp lu soxal kër gi mu ñëw teew nu koy ziyaar di ko nuyu di sëñ Ibrahima Buso mm-hmm. di nuyu tam bu baax a baax sëriñ Kàbb Géy nga xam ni ku ne xam na ni moom alalu sëñ Mbàkke Buso la yëngoom ak dalam lépp ci sëñ Mbàkke Buso la nuyu njabootam gi fi teew nuyu góor yàlla yépp bàyyiwunu kenn di la delloo kàddu gi maam Cheikh Anta Samb allah mhm. su ko defee ñu bàyyi la nga jox sunu imaam mu ubbil nu jataay bi rek su ñu siwaatee nag ñu doon laa wax li nu xam ci sëñ Mbàkke Bousso kem sunu kàttan mhm. te ñu ci wax mu nekk lu wér loo xam ne ci bind lay doon ñu jàng ko ci bind yu sëñ Tuubaa bind jëme ci moom moom it mu bind jëme ci sëñ bi ak lu njabootam bind incha allah foofu rek lay waxtaanee ak yow incha allah. barakallah Serigne euh, Abdoulaye Diop Bichri euh, ci nuyoo bu matale boobu xalaat di nuyu Alaaji Mbàkke Fay rek ci euh, barab bii nga xam ni barabu Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa di ko sàmmloo nga xam ni ngërëmal Sëñ Tuubaa rek la ci sàkku ziyaare Serigne Cheikh Balla Samb mi mu teg liggéey bi ci loxoom Serigne Jibril Ndaw mi yor programme bi ak Serigne Mbàkke Mbooj ak mbooleem équipe bu technique bu Touba TV yëpp. nuyu al imaamul akbar mii di Serigne Ibrahima Bousso moom Serigne Modou Bousso taaw Serigne Mbacke Bousso. Hmm. di ku baax nekk parcelle ca eh, jumaay Serigne Cheikh Saliou. Hmm. di ku sell te ku bari xam-xam. Hmm. teew ci jotaay bi teewal fi eh, Serigne Omar waaye teewal fi njabootu Serigne Mbacke Bousso gépp ni nga ko waxee nuyu Baye Fallou Guédé bi nga xam ni démb ak tey daanaka woote na lu ëpp fanweeri appel muy Serigne abu sàll Baye Fallou Guédé. Eh, taalibe bépp Serigne Mbousso be waaye taalibe bépp Serigne Modou Khary Fagnane. ñu ngi ñaan yàlla na yàlla euh, euh, euh, yokki leeram taas ñu ci barkeem mm. nga xam ni moom amul sens interdition ci mu murid amu ko ci yo njabootu sëñ Bousso bi amu ko ci biir l'islam bi yëpp yal yàlla guddal fanam nuyu ki nga xam ni moom itam foo ko gisee rek sëñ Mbàkke Bousso rek la bëgg di sëñ Kàbbu Guèye ànd ak njabootam gépp taaral jotaay bi jëmmal ko ñu ngi koy ziare bu baax bëgg lool sëñ Mbàkke Bousso bëgg loolu njabootu sëñ Mbàkke Bousso kon sëñ Modou Mamoun ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ci Touba TV عونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخير خديمه بركة الشيخ الخديم alaaj Cheikh te ñoo ngi lay باخ bu baax a baax di la ziar. ñu ngi lay fay bu baax di jaarale كرغي Eh, tàmbalee ko ci jëwrin alaaji yu Fay eh, naka noonu suñu xarit eh, Seex aw Balla Samb Jibril suñu xarit bokk yi fi nekk yëpp maam am biey sëñ Mbàkke Mbóoj ci bu ñu limee dina jël waxtu wala <laughs> rek lañu fa wax dëgg yàlla mm-hmm. di dellu nag ci plateau bi di beral nuyoo suñu sëñ daara suñu sëriñ ku ñu topp lu yàgg di ko bàyyi xel di ko ñaanal itam suñu borom li ko sàmm te dolli ko kàttan hmm. eh, muy al imaam eh, Cheikh Awa Balla Guèye hmm. eh, di ko nu ngoo sonn ci xam-xam di ko nu ngoo sonn ci xamle di rafet lu baax nuyoo bu jot bu rafet bu yaatu bi al Bichri jotal sëñ Ablaye Diop di ko bëggee bu baax a baax a baax di tey itam wala réew yi suñu moom naka nonu sunu mbokk sunu xarit sunu genn wàll sëriñ Mouri Talla waye di nuyu itam al imam serigne Ibrahima Bousso jaarale ci mom moom nuyoo mbollem njabot gi euh wax deug yàlla alhamdullilah sante yàlla rek ndax ma bi mushkila euh jotaay bo xamni serigne Mourou Sa moy dalil ja euh bokk ko ak serigne Mbacke Bousso ndax dama wax legui ni mënee su la waxtaanee sëñ Mourou Sa waxtaan woo yaatu tey dëgg te tuddoo ci sëñ Mbàkke bu su ay yoon yoon hmm. waxuma sax sëñ Tuubaa moom leneen la waaye hmm. sëñ Muudu moom hmm. mënoo koo wax wax ji tey dëgg sëñ Mbàkke bu su feeñu ci ay yoon kon nag maa bi muskila euh, sant yàlla rek la euh, ak ak yaatal rek la ñoo ngi sant bu baax a baax di ñaan suñu borom euh, leeralal nu te gërëm jitaay bi barakallah sëriñ Modou Mamoun Diop ci nuyoo bu matale boobu te am solo Euh, ñu ngi lay ziare bu baax xalaat di jox kon euh, Serigne moori Talla euh, mu nuyoo ak mbokk yi di fàttali rek ni bisu màggalu Guédé mooy le 25 di ngan gi nga xam ni di ajug màkk gi nga xam ni moom la maam Cheikh Anta Serigne Mbacke Bousso Cheikh Mouhamadul Fadal àggale ji woon yéeney Cheikhul Khadim ca Makkatal Mukarrama en 1928 loolu mooy sababu màggalu Guédé mooy ajug màkk gi. màggalu Daaru Xuddoos tamit kon ñoom euh, njabootu sëñ Mbàkke Buso sëñ Tubaa la ñuy màggal kon nag euh, daa daa màggalu Daaru Xuddoos tamit mooy ñubbik Seexul Xadiim ca aljana kon loolu day wane ni kon njabootu Cheikh Moustapha tamit màggalu sëñ Tubaa la ñuy màggal kon euh, ñëpp kon lépp day delluwaat ci sëñ Tubaa mi nga xam ni rek moo defar ay bokkam ban jag mu teeg njàmburam defar ay jàmbur ban jag mu teeg njàmburam kon Serigne Mori Talla ahlan wa na wa marhaban bikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم سيدنا محمد الكريم وعلى الآل والأصحاب والخديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وأنت نيو نيو باخ دي جارل نيو بي دي نيو كيبكو بوك تي كير بي dale ko ci alaaji mbàkk yu mhm. ñu jiite kër gi ba ci ki ci mujj dugg si mhm. ñu leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel bu baax ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéeyal islam mhm. rawatina yoonu mu naka noonu di nuyu suñu kilifa bii ñu bokkal jotaay bi am ci mbégte lool ci bokk ak moom muy imaam Cheikh Awa Balla Gueye wallaay ñu nuyu bu baax di la ziyaare di ñaan suñu borom may la fan wu gudd te dolli sa wér ndax suñ tubaab naka noonu di nuyu sama wëllëre sama xarit ñu ko waxee sama genn wàll Mouhamadul Mahmoud ñu bokk lépp di ko di nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu bu baax it Cheikh Abdoulahi Diop moom sama xarit comme ni mu ko waxee di wëllëre di ñaan suñu boroom may leen gudd fan dolli wér bi yokk xam-xam bi te gën koo barkeel naka noonu di nuyu bokk yi nga xam ne ñoo jóge Gédé war naa bu ñu ko tegee ci loxol imam Cheikh Ibrahim Bousso ñu jotal ko njaboot bi yëpp ñu ngi ziyaara bu baax a baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ginnaaw bi ñu ko nuyoo mu yàggalal ñu fi alxalifatul am Cheikh Mouhamadul Muntaqa euh, te dolli ko wér amiin te kàttanal ko te euh, may ko mu àggale li mu yéene liggéeyal Sëriñ tubaa bak Sëriñ Tuubaa amiin ziyaare bu baax waa Daaru Xuddoos yëpp dale ko ci Cheikh Ahmadul Maxtaar ñu fi toogee jotaay Cheikh Moustapha waaye di nuyu bu baax tey ziyaare tey ñaanal suñu buntu ci Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ñu koy ziyaare bu baax di ñaan suñu borom may ko gudd fan te kàttanal ko te wéral ko te sàmm ko ba liggéey bi muy liggéeyal maamam Cheikh Cheikhul Khadim mu àggale ko fu kawe njortam ci barke Serigne Touba naka noonu it di nuyu bu baax suñu jëwriñ Cheikh Mouhamadul Amin Baara di léppam bu nekk ak moom fii ci Ndakaaru di ko ziyaar bu baax di nuyu it baax ñi nga xam ne ñoo fi yebal ak di leen sax muy section Dakar ca booba Cheikh Ahmad Mbacké jenn nekk ca booba ak mbooleem ñi topp ci ginnaawam naka noonu di ziyaar bu baax alaaj Njóogu mi nga xam ne moo fi teewal sëñ di rafetlu bu baax jotaay bi am mbégte lool ci li ñu war a waxtaane insha allah jërëjëf sëñ Mori Talla eh, Ahibayal Qadim eh, Cheikh Moustapha Mohamed eh, Darou Khoudous di ziare bu baax sëñ Fallou Bousso Assane mi agsi léegi ci jotaay bi ak njabootuk sëñ Omar sëñ Mbacke ak mbooleem ak Fati sëñ Mbacke Bousso yi agsi léegi rek ci njiital sëñ Fallou Bousso Assane di boroom xam-xam war a tabbi ci jotaay bi bàyyi ko Touba ci ndigalul sëriñ Omar sëriñ Khadim Bousso imam moom itam docteur waroon na dikk waaye ci ndigalul sëñ Omar ak sëriñ. Abou Boussa Moussa ñoom ñëpp waaye nag eh, ku ne xam na ni sëñ Ibrahima Boussa du tooyee sëñ Fallou Boussa Assane toog wala imam Cheikh Ball gii rek ku ko gis bokk ci sëñ Mbacke Boussa da nga da nga koy bëgg a déglu rek muy wax ci sëñ Mbacke ndax xam nañ ni mu ko bëggee ak ni mu ko xamee kon imaam ñu ngi bëgg di bokk ak yow jotaay eh, di kontaan bu baax ci taxawaay bi nga am ci télévision bi ci xam-xam ci wane sëñ Touba ci xam-xam ci niñ ko war a wanee ci xam-xam eh, di la di la dalal nag ginnaaw boo nuyoo ba noppi. Euh, nga nga nga dugal ñu nag tuuti jàngaleel ñu euh, kan mooy sëriñ Mbacke ba ñëpp mën koo roy ndax sëñ Touba kat ab joxoñ la joxoñ la dañoo joxoñ sëñ Mbacke ngir ñëpp roy ko waaye ñëpp dund ko ndax ku ko dund danga doon jullit ak xan waaye danga doon murid saadix danga am xam-xam te li nga looy def danga ko teg fi nga ko war a teg kon imaam ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على مولانا الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سرين شيخ أنت سامبو نجلي نيو دلين سيارة دلين دوكير كي أتمو يزمي دنيان سنو برامب سبحانه وتعالى مو يوكو مانجي أكبر سبي أكبر te sàmmal nu sunu diine sant ko it ci xiiwal gi munu defal ba nu fekkee at mii weesu te doon ko ñaan bi at mi jàll ak jàmm eh, yaakaar naa ni jitaay bi li ngeen fi jote dugal yépp ci ay nuyoo tudd fi ay kilifa ñi ngeen tudd ñépp tudd naa ko ci seenu tudd <laughs> li ngeen fi ñaanit aminu naa ko ci seenu ñaan day mel ni jërul baamu ndax ku mat tudd tudd ngeen ko lu ñu mat a ñaan it ñaanal ngeen ko kon yal na ñaan yi nangu amin rek lañ ciy wax waaye li waral mm, toogaay bii tey muy mawlaana alxaaji mbàkki buso radiallahu taala anhu ak mawlaana cheikh mouhamadul moustapha ibnu seykhil xadim Allah taala anhuma lu am solo la lu murit bu nekk war la ndax dafa yu bari kii moo jëkk a don janggalinun sëriñ Touba doon jàngale nuñ koy wuutoo muy yu mu bàyyi yoo dañ ko war di nafaraka nafarat jamono bu nek, te mu def ci lu ci fitam ak wàllu jamam ak wàllu xam-xam jiite woon na yoon wi ci fit ndax li mu defoon ba bisub tey bu ko état defoon sax ñu tàcc ko mooy xëcc ab raay ba mu àgg fa mu àgg moo tax jamono bu nekk bu ma déggee ñu naan am na mbooloo mu ñuy wax tuubaa ca kanam ñoo ngay def godoron sàngam ma ne dañuy fàttali Cheikh Moustapha waxoon na leen ni lu ne mënal ngeen ko seen bopp loolu la waxoon ci raay ndax loolu laa gën a jafe ci lu nit di def dëgg la mu ni maneef na ko mm. kon waruñu koo fàtte euh, bokk na ci rëy yitteem mm-hmm. ku xam Touba ni mu demee xam jumaa yi tuubaa ak péncum tuubaa nit ku taxaw di rëdd penc mu toll noonu ci dëkk bu matul fukki kër ca jamono yooya kon yégoon na lii ñëw Touba li nu aada woo woon mooy kuy defarub dëkk dangay wut wut ci mu tolloog moom ak jàkka ju dëkk ba bu dee dëkk bu ndaw nga def jàkka ju ndaw léeg sax du mën a am juma waaye dëkk bu matagul fukki kër nga rëddal leen juma defal leen ci moo xam ne booba jamono dëkk ba xañ ci booba jamono dëkk ba xajoon nañ ca mhm. ndax am na ñoo xam ne nii seeni tool mi ngi nekkoon diggante kër gi ak jumaay gi mhm. dañ ko daan bay gerte kon li mu xàcc woon rëy na loolu fit la mhm. ñu boole koo soppeem nag alxaaji Mbàkke Buso Cheikh Moustapha da koo fonkoon sopp ko lool wekk ko lool def ko muy kilifa ba bi muy bëggee dajale seex yi yépp bëgg leen a woo xelam dem na ci ni Mbàkke moom ñimiwu ko woo mu ni seex yépp kon soxla ni ni kër sëñ Mbàkke so <laughs> seex yépp dañ leen a soxla ca kër sëñ Mbàkke Buso ndax mënta bañ a fekke jitaay bi te mënee su koo yëkkati ñoom seen teg yi nag seen fit xam gu ñu xam sëñ Touba ak fa mu tegoon kooka tax na loolu duñ ko def ndax ñoom dañoo xam kuy sëriñ Touba dañoo bëgg sëriñ tuubaa bu wér xam ko bu wér liggéeyal ko bu wér moom Mawlaana Cheikh Mouhamadul Fadil mas naa wax ni sëriñ Touba day maag sama mag ju baax ji Cheikh Moustapha maag sama mag ju baax ji Cheikh Moustapha li mu yore bu nu juddoo woon ca fu kenn xamul it dañ ciy am ni yëpp ndax lu ko nit di defal defal nan ko ko bayal nan ko goral nan ko bindal nan ko alxuraan tagg nan ko bu dee xam-xam la joor nañ ko lu ne bu ñuy fay tàggkat yi ëllëg dañ cey bokk bu ñuy fay bay joxe ya dañ cey bokk bu ñuy fokk bindkat ya dañ cey bokk ñu teg fee ñu réel ga nag ma tax suñ fàll noonu ko bu waxtu bu na wati ya njuréel gi moom dañ ko sànni fële fas yéene li gaay yi def ba am nu def ko loolu la ñu def kon ñoom taxawuñu woon rek di seetaan gaay yi dañoo duggoon ci làmb ji di ci xeex ba li ci ñëpp di am ñu am ko ci dolli nag seen bakkar fegu gi ñu am ak suñ Tuubaa nga xam ne kenn amu ko kon kooku bisam bu dajeeg jàmbaar joo xam ni sëriñ tuubaa daf koo defan mu ni dencam yebal ko fi barab ni ko toog fa xaar ma fa mu dégg ndigal lool ndax ab taalibe la ab taalibe bu ñu ko nee defal nangam dootu fa jóg ba ñu ko nee demal Touba xaar ma fa mu ñëw Touba waaye ci taalibe mu ni du dëkk Touba ndax bëggul mbalitam di tuuru ci Touba. sëñ Mbacke Bousso. waaw du bëggul sama mbalit di tuuru ci Touba kon damay dànd Touba ba bu ma ko soxlaa teel a jëw waaye lu may sànni du sànni ko ci suufu Touba mu dem sañ ci dëkk tuddee ko Guédé wa baynahu wa bayna Touba miilu fa in yazid fa sayduhu xaliilu dànd ko lu tolloog miil bu dal bu fekkee ni ëpp na ko it bariwul bu bu ñu nee allahu akbar jàkka ji mu mën a teew bu sëriñ bàmba soxlaa mu mën a teew bu njabootam soxlaa mu mën a teew ànd ak nag lu ñu naan day tilimal tuubaa moom du jóge ci moom xam naa bu ma waxee ne luy tilimal tuubaa du jóge ci moom bul jàpp mu ko ni mooy mbalit mu jigéen ñi sànni mooy lu yàlla bëggul hmm. lu yàlla bëggul du ko jige du ko jigeñal Sëriñ Tuuba te it du ca noppi bu gisee lu lu lu yàlla bëggurit mu wax ca ndax nee na loolu suñ beeg ko digaloon ni ko foo gisee lu dul noona waxal looloo tax ba mu gisee lu lu ko neexul mu ni ne raaytu munkaran fa ankar na summa laa arda laa arda walan arda atta tarda ya gis naa lu ma neexul lank naa ko te dama koy bañ ba kere ngay ñëw yow yàlla mi ko tere woon nangu ko nee na li yàlla tere woon feeg dellusiwul siwul ko duma ko def te duma fekke fu ñu koy defee te waxuma ko te loolu la ko sëriñ Bamba digaloon kon ñooñu boroomi fit lañu ndax jamono métti na métti goo xam ni tartar yi bari woon na jamono boobu borom fit rek moo mën a jaar ci dëgg mhm. ndax léeg-léeg bekkoor am ñépp sonn te bu nit ñu sonnee rek eh, ab ab yaafus dana yomba yomba jàdduloo ndax day xeymam li gaay yor day yomba jàdduloo waaye ñoom diisu leen jàdduloo jamono mënu leen a jàdduloo tartar mënu leen a jàdduloo du leen tee mën a wax li ñu bëgg a wax tey nekkul woon koo xam ne daa yemoon rek ci daaraam ak ub téere xelam nekkoon na ci lépp di xool réew mi ni réew mi doxe mu di ko xool lu ko ca neexul mu wax ko. moom sëñ Mbacke Bousso moom sëñ Mbacke Bousso. daana wax ci réew mi kon bu doon jamono damay wax dañu naan ab politicien la woon. ndax jamono ba ñuy watee wax na ca watee leenu ba muy wate wax na ca watee ba leenu gañee wax naa ak moom. ba mu gañee mhm. dafa wax ak moom mhm. leetar bi mu ko bind mi ngi nii ma téye mhm. ko wax daf ko ni yow nga leen gaa yi watee nañ la de ba gañee nga toog nga ci nguur gi waaye dundale réew mi ne réew mi naat nemmikul jaam yi xamal lu ñuy fanaane ñi ñu fi dàqe woon delloosi leen ñi ñu tëjoon tijji leen ñi ñu fi dàqe woon ñu génn réew mi nañu dellu ku ñu tëj ci kaso yi te tooñ la dellu di ti ubbi ko mu génn yow nga leen dimbalil néew ji yi dimbalil borom métier yi bu leen teg lu ñu àttanul yombalal leen li ñuy jaay lépp loo xam ne nii nit a nga cay yëngatu taxawu ko ca rawatina nag baykat yi taxawul baykat yi ak lu niroog ñoom muy sàmm yaag yu mën a doon nga leen yeewul bul gëmm ci ñooñu génn benn bis man yàlla maa la tànn teg la ci kanamu jaam sama jaam yi bu ñu tuumu rànki bu ñu tuumu rànki mbokk mi ndax wax jooju dees na ko wax fi ne <laughs> kalimatu xaq amaama malikin jaahir oh. dafa gëm ni jamono bi muy wax lii mi ngi naafila yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni naafila gi gën a rëy mooy baatu dëgg ci kanamu buur bu jeng oh. mooy gi gën a rëy oh. benn bis damay diglu benn bande damaa kontaan hmm. euh, Cheikh Ibrahima Niass booba xaw ma lu xewoon ba ci tëjum jàkk hmm. mu dal ci kaw Senghor hmm. Senghor lii bu mu fi amati te buur la koy wax ba mu fi amati mel ni koy wax akub dongaam uh-huh. loolu mooy kalimatu xaq uh-huh. moo gën a kawe naafile uh-huh. sëriñ Mbàkke lii la waxoon keroog ki gañe ndeysaan ca galandu ca galandu Juuf mu ni ko sama boroom day te bi mu koy wax ka daf koo waxee baatin boo xam ne nii bu doon léegi la dañ naan ndax kii do day bokkaale ndax daf nii anal xaq te fekk yàlla lay bëgg a waxal dafa jël melow yàlla di ci waxee ngelaw maa la mm. sàkk mm. maa tax nga gañe mm. maa tax jaam yi topp la geesul gaa yi geesul gaa yi santal xiiwal gi xiiwal ji la yàlla defal sant ko ci te mooy nga dundal jaam yi teg leen ci yoon wi nga xam ni foofu lañu war a tegu yow nga leen bul fàtte mukk lele teg bul ko fàtte lii wax na ko ki gañe woon jamono booba ndeysaan ca jamono booba noo ngi defee ni gaa yi moom yëguñu lu xew ci réew mi <laughs> loolu la ñu foogoon ndeysaan ndekete ma ngay lijjanti fépp la ma ngay xool fépp mhm. ba ca makkatal mu karama mhm. dafa daan bind ay bataaxel di yónnee nguur googa di leen tekkiw yoon mhm. bind na benn bataaxel euh, adressé ko burhaan burhaan yàlla dogal ne burhaan jamono boobu sax faatu na mu yónnee ko soxnaam xam naa kon màkk booba wute naa ak léegi ndaxte biir leetar ba ma ngay nuyu njaboot ga gépp kon mel ne ni dund naa ñoom ci génnu kër xamante naa ak ni ko na nga sàmm njaboot gii nga yor nanga leen jàngal quraan na leen jàngal xam-xam na leen jàngal fiqul imaamu Maalik mi seen baay bi nekkoon mm-hmm. lu taxoon mu wax ko ko loolu mu ne ko ndax yow yoway jël mbooleem ujaay yi jóge Afrique ci yow la ñuy dal te ñoom ñëpp ci masabu Malik la ñu nekk pour nga noppal leen mm-hmm. nañu xam masabu Malik mm-hmm. dëgg la bu wér looloo taxan mu yóbbante ko loolu mm-hmm. ni ko ndax réew moomu de am na lu ma fay xeeñ loo xam ne bis dina ñëw ngir moomu jafe fa lool te moom gis sori woon na lool lool teel naa xam luy waxee bi mu ni yëg naa ne bis a ngi ñëw danañu faagaagal ngir moom waaye na fekk sa njaboot xam ko lool ba bu africain yi ñëwee ñu mën a déggoo ñoom. Mhm. kon kooku gis-gisam romboon na foofu. te famille Burhan ñooy daloo Afrique. ñooy daloo Afrique ba bii bis bii may waxee yow. yaakaar naa leetar ba sëñ Mor Fatou Touré ko yóbbu woon. jeex na 1930 la. 1929 29 30 waaw 29 waaw. 29 30. 29 leetar boobu. Mhm. Euh, Abdoul Wahab doomam. wala mhm. sëtam. wan na ma ko ci biir ordinateur am. ndeysaan loolu lu ko gën a leer amut. Euh, Cheikh Moulay Bousso it wan na ma fa leetaram. ndeysaan mu di ko gërëm ci addiya ju mu ko yónnee. ndeysaan xam nga kon jamono boobu noo leen tane woon. wallaay ndeysaan booba euh, pétrole feeñagul. wallaay wax na sax limba. ndeysaan waaye am na lu mu ca doole lu yéeme. doon na ko ca laaj ci leetar bi ni ko waaw ren man at ngeen ban ban bis ngeen wori xam nga lu ma bëgg a wax. Mm-hmm. jumtukaay moo indi. bu ma ko waree ma wori. Mm-hmm. jumtukaay la ko jox mm-hmm. Mm-hmm. waaye jamono boobu nga xam ne burhaan mënta xam bisub Sénégal mm-hmm. Sénégal mënta xam bisub Màkka <laughs> lu dul lu daje ci mawsimul xaj yi kenn du ko xaar Màkka kon jumtukaay yàlla doolli sa diine nga defee ne yaa ngi ci dara tey waaw wax nga dëgg de bidaatun asana aw bidaatun <laughs> eh, waaw jumtukaay boobu nag bu demaan ba yàgg mu ne meles nooy def ñu ni ordinateur yi dox nañu téléphone yi dagg nañu. Hmm. kañ la la màkkee jox bis. te ngaa demoon ci li la yonent bi waxoon. soo moo li ru'yatihi wa abtiroo li ru'yatihi fa in xumma bu niisee dem leen toogi maa ko res. Hmm. yoonam doo res di yoonam sa yoon niwu ji. Hmm. nee na bu niisee nag def leen lii. maa ko res. te mooy ki nu indi leen diine ji. loolooy sunna bokk yi. kon sëriñ Mbàkke Buso. bëtam dafa xepp ko woon ci àddina bi. mu xam lépp nag xam yépp xam nag Serigne Touba Serigne Touba xam Mbacke yaakaar naa ne bi su di dina ci ñëw ci bind yi nga xam ne Serigne Touba bind na ko ci Serigne Mbacke mhm. te loolu bariwul lu muy am déedéet te wallahi xasiide bi mu def ci moom du xasiid ak nit ku bind taalibeem mhm. xasiid ak nawle la mhm. dëgg la ak nawloonte la bind lam ko wax dama laa namm lool lool kooku kenn du kenn du ko waxante ku dul koo nawloonte koo boole ci rang bi moom daa bokkoon ci raabiru sëñ bi <laughs> sëñ bi dafa bokkoon ci boo demee ci biir Fatawa danga xam ne ci bi la ko. am na ku ñuy wooyee Mouhamadou Ismu. bokkoon nañ ñi raw ci gànnaar. di boroom xam-xam. moom mooy sëriñub al Cheikh Abdoulaye Dieye. mooy sëriñub Ahmadou Miska mais nekk Mauritanie tey. bokk ci ña fa raw. kooku mooy taalib téere bi ñuy tuddee. mañ moo u Fatawa Ibnu Taymiya fil misaan hmm. fil hmm. bu mag boobu ibnu hmm. taymiya def wala bi ñu ni moo ko def ndax ay fatawaa la rek yu ñu ko askane moom day teg na ko ci balaas defaraat ko nag génn ci xalaatam kon kooku dugg dugg na kenn kookee nag nee na li muy tiitaroo ci àddina ñaari ñetti yëpp rek la inni bi am di leexi asari yu aqidatan fil fiqi malikiyu tariqatul xadimi si nahjil xawim tariqati hadha sirati mustaqim konkal hmm. momu nee limay poukere wo moy don mooy ci aqidatul azhari bobu gaay yi baña deg hmm. man nee lol lay titero bokk ci ma neex hmm. nee benen bi ma bokk ci mësa bu malik benen bi cheikh bamba di sama seri moma ponkal de lol la wax kon lu bamba don ñoñu nak luma bëgg wax ci boo demee ci fatwa bu fatawa al mbusoobiya oh. ñi doon laaj sëñ Mbàkke mu deen tontu oh. sëriñam boobu bokk na ci ñi doon laaj sëñ Mbàkke oh. kooku rawante gànnaar ñiy laaj sëriñ Mbàkke demal ci téere bi di ko fa fekk mm-hmm. kon na kon moo doon gàgganti gaa yi mm-hmm. mooy ki nga xam ne mënta nekk ku dul gàgganti gaa yi ndax moo ni wa ida axastu min al midaadi li xirtasin qalaman xabaani kullu arfin kullahu jàngandoowu maa gaa yi uh-huh. bu ma téyee xalima yàlla jox ma arab yëpp ma xam leen uh-huh. kooku kon du maas uh-huh. euh, kooku la ñi ñuy joxoñ kooku lañ doon joxoñ Mawlana Cheikh Souhaïbou Mbacké radiyallahu taala anhu nga xam ni moom dafa bëgg bëgg bëgg ba ni mu bëggee Serigne Mbacké Bousso bëggee ni Serigne Assane Bousso nit mënu koo xiyaat mas naa koy laaj benn bi ndax damaa gis ni mu mel ci suñu Assane mel koy suñ mu laay bu ñu masaa ñëw euh, ba yëglu ni ñu ngi ñëw ci buntu kër gi comme sëñ Bakke sëñ sëñ Soy moom toujours ci këram day tëggu hmm. mu yebal maam Balla yàlla na ko fi yàlla yàggal hmm. doomu suñ mu laay hmm. ni ko demal ubbi sa kàggu yi <laughs> kàggu yiy dox loolu la leen tuddee woon kàggu yu yori tànk kàggu xam naa bu ngeen xamul mooy bibliothèque bibliothèque yu waaxo yooyu demal nga ubbi leen ñu ñëw benn bis ma gis ni mu mel ci sëñ Asan ma di ko laaj ni ko waaw man de sëñ asan xam naa ko doon naa jàng ci moom gis naa ni mu sàmmoo sàmm bu ëpp sax nag loo xam ne léeg-léeg sax da wax ni mën naa ëpp ndaxte sëñ Assane du xool lu araam mënu koo gis sëñ Assane bu nekkee ci biir këram bu yëngatu wax ñëwee mu gëmm ba keraloo lay dem ndax bañ rek jigéen rax ju mu gis laa ilaaha illallaah toog nañ ci wetam di jàng mu toog ci lal bu ndaw nu nekk ci suuf di jàng ñaari xel yu jigéen ñëw seen yaay yónni leen ci moom ñu wax ak moom di wax ak moom ba wax ja jeex ñu ni ko noo ngi dem tekkati déggul noo ngi dem mu ko continuer di wax ci biir lool la ñu xamee ne ndekete moom xoolu leen woon ndax xel yi génn nit ñi ba dem te teewul mi ngi leen di yóbbante ngir lan bañ a gis lu xaraam kooki nag ma ne ma ne sëñ bi waaw sëñ Mbàkke Buso dama ko dégg waaye sëñ Asan bi ma xam ndax deug deug nak seigne mbacke man na dem baraw seigne azan <laughs> ak bu boobaa nu muy def seigne seigne seigne sëñ joy bu ni ma ah, kooka nag mom bokul de <laughs> ndeysaan waaw kooka moom bokkul ndeysaan mu ni bu daan waaraate de ak wonkam kep da daan joylo mag ñi waxagul baat bi muy bëgg wax certet bu yëngatoo bu wonkee kep gaa yépp jooy ngir lan dafa am fu mu branché fa mu branlé moo branlé ci xolu jaam yi gis ngeen nun ñu branlé wul fenn dañuy wax gaa yi tàccoo ko yuuxu kepp kenn du jooy du mhm. <laughs> ñu yëg ne sax waxagun nga bu ñu fa jógee fàtte ko waaye ñooñu seen ñetti baat yi ñu doon waaraate ñëpp ko mokkal ba léegi nitu yàlla bu waaraatee kenn du ko fàtte bis bu nu ngeen naan sëñ Saaliwu nee na te sëñ Saaliwu mës ta wax lu feesu bànd waaye lam doon wax dafa jóge ci ruux mhm. ruux yëpp capté ko kenn dootu ko fàtte loolu la waaraatekat boobu meloon kon Serigne Mbacke Bousso euh, jërë ngeen jëf bi ngeen ko indee barakallah sosale ko jërëjëf Maulana Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo di awalu xalifatin li Cheikh al Khadim di jàmbaar ju mag joo xam ne xettali na jaam yi ba tàyyi ci ñaanam yu gaaw a nangu mm-hmm. euh, dinaa koy nettali toujours ci sunu mbas yi ndeysaan xam ngeen ni xas yi de googu mu defan takkat dara ci dunia wa daaxa ay nil wara mm-hmm. ba mu ko defee ay tartar la woon booba yu jamono metti woon mu def bayitam yooyu ba mu àgg raayé ba ndeysaan raayé bu rafet booba jotti li xalima ga Cheikh Mouhamadul Fadil ni ko defal moom it mu def raayé bu toll noonu jotti li ko Cheikh Mouhamadul Bachir moom it mu def raayé bu toll noonu ba ñu noppee kat mbas ma wéy na gis nga xasiidey sëriñ bàmba yii ak dënni góor yi sëriñ bàmba yii yàgg nañu fee jëlee mbas barki démb bi Cheikh Mountakha wooyee jaam yi ni nañu jàng bi yàlla bii nanu jàng alquran jii uh-huh. nanu jàng xasiida sëriñ Tuubaa yi ngir mbas mi dem taw bi ñëw uh-huh. ba mu noppee la lépp ñëw dëgg la uh-huh. boobaa tey la lépp ñëw mbas mi moom dem na lu ci des kay nit a koy téye rek waaye boo ko bàyyee mu dem mun koy bàyyi rek muy dem waaw ah, dëgg la insha allahu taala dégg naa waxkat bu am xorom sëriñ <laughs> Iran nee na nee yi wàññiku ne bu leen ko yokk gaa yi moom wàññiku na bu yàgg neen du ngeen ko yokkoo tamit wàññiku na yo wàññiku na loolu moom yéen ah, dëgg la dëgg la taw bi it ñëw na waaye sëriñ bi nag yónnee nu bayit boo xam ne nii bu garaaw la xam nga lu mu jublu mm-hmm. yàlla lan doon ñaan noonu may ndax danoo tiitoon dëgg la may nanu mm-hmm. nga lawaay gaa yi bu nu jortoo mukk ni mm-hmm. keneen mën na fee indi lii fi yàlla indi dëgg la lor gi mu fi jele mom kep ko man deug la taw bi mu indi mom kep ko man ku jorto le ne nit ci musiba ngay nek àddina ak alakhirah lolou la bayit bi indi asalaamaaleykum rahmatullah macha allah barakallah imaamul akbar jef Cheikh Mamadul Muntaxa daa bëgg a génn ñëpp ci le seigne touba waxon rek ni baraani illahu min shirkin wa min kulli nifaqin wa saadati damin mu xamni ni delu wat ci suñu borom yàlla rek moy amal mbir yàlla ñu yàlla fayal Cheikh Mamadul Muntaxa am na ndam lu reuy amate ndam lu reuy day wane rek ni tawasul ba cheikhul xadim daan ñaan suñu borom tey jiitee yàlla du ko ñaanee rek suñu borom amal ko tey nag euh, euh, dégg nga li mu wax yàlla la ñuy ñaan waaye sañ nañoo ñaan ci barkeb suñ Tuubaa kon nag moom leeral na ni ñuy ñaanee waaye leeral na ni ñuy defee tawasul ci suñu borom yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko imaam jërëjëf euh, ñu ngi lay duñ la bëgg a téye lu bari jëf Guèye yàlla yàlla guddal soo fan bala ñoo dalal sëñ Fadlu bu soo asan xam naa dañuy Euh, dem ci régie bi tuuti rek sëñ Dame euh, euh, yaakaar naa ni sëñ Modou Mamoune Diop man koo taataan ci Cheikh Mouhamadul Moustapha al mi nga xam ne nag li mu defal sa li mu li mu liggéey ci yoon wi sëriñ Modou Rokhaya suñu sëriñ daf daan wax naan ku xam Cheikh Moustapha mu yar la dootoo bëgg a xam keneen dootoo mën a gëm keneen <laughs> sëñ Modou Rokhaya loolu la doon wax. nee na sëñ Modou Sa du la yaree dootoo bëgg a xam keneen dootoo bëgg a gëm keneen oh. ndax Cheikh Moustapha rek ngay xam oh. kooku mooy ki nga xam ne nag euh, lu fi waay def euh, yaakaar naa ni euh, Cheikh Moustapha rek ngay def ndax sëriñ Abdou naa daan na ko wax sëriñ dan xariloo sa wajuru baax wala ñu roy ci lépp ndax moo ñu yar Cheikh Moustapha mooy ki nga xam ni moo jàngale ak taalibe ku fi nekkal sa baay na nga doon sa taalibe bépp baay kon yaakaar naa ni la soxna may bintu xaadim rasul daan seere ca moom ak soxna ami cheikh ak euh, doomi sëñ Tuubaa yooyu nga xam ni euh, ñooy ñi gën a néew ay at euh, daan wax naan dañoo jàppoon ni seen taalibe bàyyi la jàpp ñu woon ñoo bokk bàyyi loolu doy na sëkk ñu xam kan mooy Cheikh Moustapha ñu ngi sant bu baax booleem njabootu Cheikh Moustapha gépp sëñ Modou Mamoun xam naa ni sëñ daam dañuy dem ci régie bi te dikkaat déglu xasaayiti Serigne Touba yi mën a daral Serigne bu Bousso asan mën a dikkaat ci plateau bi déglu nag Euh, ki nga xam ni euh, mooy euh, Serigne Modou Mamoun Diop mu dugal ñu ci kan mooy Cheikh Moustapha borom liggéey bu barkeel bi nga xam ni ki nga xam ni li imaam wax dëgg la indi bra yi waaye tracé yoon wi ba ku nekk xamaat sa bopp ba ku nekk xam ni murit bu nekk représentant Serigne Touba la fu mu mën a nekk ko ki ñu ko jàngal mooy Cheikh Mamadou Moustapha al Karim kon Serigne daam ñu déglu tuuti waxi sëñ Muntaxa ji rek. ca ñaan gam doon ñaan suñu borom te suñu borom nangul ko ni mu ko nangulee suñu borom amal li mu amal te dellusiwaat ci plateau bi. ñu yebal bi. waaye jaam na sañ naa ñaan moom. waaye jaam nag sañ naa ñaan moom. ay jaam rek la ak noonu. dafa ay jaam rek la ak noonu. suñu borom dañoo bind. suñu suñu borom dañoo bind. nu di jaamam. nu di ay jaamam. mu andi moom suñu yoon nekku ci. loolu moom suñu yoon nekku ci. yàlla moonu moom. yàlla moonu moom. fendi. sakk nu. sakk nu di nu jaamuloo. di nu jaamuloo.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 الكتاب والحديث انصرفا قلبي وبال بي المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا سيدي Pape Cheikh ñu wëlbatil ñu télévision war a liggéeyee ñu ngi koy ñaan Mansour ak euh, sëñ Pape Cheikh ñu jàppale ñu ci rek nga xam fi ñuy toll moo gën ndax nag euh, euh, wax dëgg yàlla di ko xool dinañ ci dimbali bu baax a baax ñu ngi dalal sëñ Fadou Bousso Assane bu baax ci ñëw gi ak ñi mu àndal ñëpp sëñ Mourou Mamoun Cheikh Moustapha jàngale ko mooy jàngale sëñ Touba màggal gi sëñ tubaa lañuy ñuy màggal ndax ku ne xam na ni ku ci fanaan ba bët set rek. Euh, suñu borom setal la ci ay bakkar lolu Cheikh Moustapha ko wax euh, lu am solo la lo xamni yakar na ni euh, du màggalug talibey dar khudus rek waye màggalug seigne touba la go xamni ñepp ko wara magal ay Cheikh Moustapha nak day doy ndax ndaw ñi dañ ko xam fimne mag ñe ko mëna xam ndax dafa yag waye kuko jangale rek yakar na ni ku déglu waxtan wi ci Cheikh Moustapha da nga am ngor da nga am jom da nga am fit te loy def ko tek ci barab te loolu rek am solo Cheikh Moustapha sëñ Mamoun kan mooy Cheikh Moustapha. Euh, jërëjëf El Hadj Cheikh Anta euh, dañuy jëkk a dellusiwaat rek sunu nuyoo ci sëñ Fallou Boussa Hassan euh, di ñaan sunu borom dolli koo sàmm lool ku ñu bàyyi xel la kuy nu ngoo sonn ci sunuy jataay la. at yi yëpp panel yi nga xam ni ñu ngi koy amal ci màggal gi yëpp da koy teewee. ndeysaan di ku ñuy bàyyi xel waxtaanam bokk na ca lool al arjurul xalfiya bokk na ci mawduu yi ma gën a <laughs> bàyyi xel ci moom ndax euh, dafa am loo xam ni ñu bari dañ ko doon laal tam mata laal euh, di wax ni euh, man ñaare ci jotaay yi Cheikh mhm. damay njëkk di dindi yi nga xam ni ñaare dañ koy bëgg a saxal ci taarix te fekk loolu wérul mhm. ñaare lu fi yàgg la sax xëy na waaye danaa koy wax lu bari Eh, Cheikh Moussa buñ koy nirale ak eh, alayhi salaatu wasalaam eh, di wax Muhammad di wax Aminatu di wax Taif ay njumte daf ciy am léeg-léeg da ngay dégg ñu ni sëñ sa mo moo ci Taif alayhi salaam moo ci Taif loolu wërul Taif ga ca makk mo alayhi salaam sanc ko waaye Taif gi ci Touba ak Taif ga ca màkk itam diggante tollowul hmm. Euh, te yooyu taarix du ko bëgg a saxal euh, loolu lu mat di jubanti la mhm. euh, mu mel ni sëriñ Mbàkke bu so ñu doon mi ñuy imaam bàyyee léegi ak sëriñ Asan mbokkam ma mhm, waaw sëriñ Asan bi ñëwee fii ci kër gi di tàggu sëriñ Cheikh Gaynde ma ngir dem Màkka waaw nga tey ci digg bi sëriñ Cheikh wax na ca wax ju yéeme mhm. xëy na ko mën a wax ci jataay bi waaye wax na ca wax ju yéeme bi mu ko tàggoo ba woon ko ginnaaw Eh, muy ku bëgg sëñ Tuubaa waaye muy ku bëgg alayhi salaatu wasalaam eh, loolu it firndewu na eh, ñuy siyaar njaboot gi yëpp di ñaan suñu borom doole sàmm kilifa gi te sàmm njaboot gi di wax ni Cheikh boo bëggee mën a seere suba mm-hmm. da ngay consulter démb te wax nga dëgg di nga mën a maîtriser tey ngir seere ëllëg Cheikh oh. Moustapha mooy démb dafa mel ni warees sa ci man a dellu si mhm. eh, ngir jàngale ko te des ko jàngale ngir day doomi sëñ Tuubaa eh, mu ngi ganee jamono Daaru Salaam mhm. eh, ama 1306 dëppoog 1888 loolu ak jàgle la ndax barab yi dañoo gënante ëppante ci coobare suñu borom ndax barab yi defuñu dara daaru salaam gi mu gënee jamono xam nga ni Touba mooy pàkk bi gënal sëriñ bi ci kaw suuf waaye daaru salaam ak Touba ñoo bokk bu àtte dëgg la ndax sëriñ baa ngi koy wax ca duwaawul kabir allahuma innaka xutta zimaami ila al ardi allati ixtartaha lii wa banaytu fiha daarayni li axbudaka bil imaani wal islaam wal ihsaan wa samaytuhuma wa samaytuhuma daara salaami wa Touba loolu leer na moom. Daaru Salaam ak Touba ñoo bokk ba at. alhamdulilah rabbil alamin ñun ñu fa dëkk. alhamdulilah mu mel ni loolu ak jagle la ci moom. mu gane Daaru Salaam. jamono. waaye mu doon nit koo xam ni imaam wax na ci lu yaatu ci nu mu fonke woon sëñ Mbàkke Bousso. xëy na dañuy anticiper bi muy génn xebla jumaa ji. Eh, te yónnee ab sofóor mu dem jëli Sëñ Mbàkke Buso bi muy ñëw ànd ak lenn ci njaboot gi bi mu ko jubee dañu ñokket jógub màggal eh, gàttandu ko eh, saafonte ak moom dij ko ci banc bi mu toogan taxaw tiim ko ab diir mu ànd ak moom ñu dox ci penku bi ay jéego waxante fa ñoom ñaar sëñ saa moo nettali fal Madior nee na sëñ Mourou ma netti lañ waxante ndax ñom ñaar rek waxante. Hmm. neena seigne mbacke dako ni lutax nga bëgg def fi jumaa ji te mu nekkane fe bu jëk neena seigne sëñ Mourou ni ko dëkk bu seigne bi nekk dama fa ñime wula julli diko won ginaaw motax ma bëgg nu botal ko parce que seigne mbacke ni ko yow mi xalaat li yow rek yaa war a jiite. ñu delu ci wat ci jataay booba euh, sëñ Mbàkke génne xeble ya ndax loolu yit mom la ko seigne touba santan ci yoonu jëkk ko waaye diggam ak sëñ Mbàkke am na mbokk mu bi mu wàccee ab liggéey te moo du ñëw di ko taxawu jóge ci sanc bi muy këru Daaru Xuddoosam ngi ñu daan wax sanc bi eh, sëñ Mbàkke ñëw te booba yin mage na eh, daa wax ab safóoram ni ko demal nga yóbbu sëñ Mbàkke boo nduppee nga yóbbu sëñ daam te man dellu ca kër ga te boobu mooy xalifa sëñ Tuubaa ak woyof ak fonkeel foofu la mën a yem waaye ñoom eh, nit yi sëñ tubaay yi ni ñu mel ci ak defaru ak bëggante. Euh, bi bi bi chauffeur bi ñëwee sëñ Mbàkke da ni demal yóbbu sëñ daam moo ma jëkk ci sëñ bi. bi mu ñëwee ci sëñ daam ni ko sëñ Modou damaa waxan loolu waaye sëñ Mbàkke yebalaat na ma ci yow mu ne ko demal yóbbu sëñ Mbàkke moo a jege sëñ bi. yo <laughs> yooyu baax yooyu yu mat a jàngale ndax ndax ndax yu yu yu raar la euh, sëñ Modou nag bari na lu mu lu mu réussir euh, li ko ko may mooy woyof mm-hmm. lu am solo ci julli danaa di wax ni yàlla ñi muy yëkkatiloo. Mhm. li ñuy bari bari doole ëttanuñ lu diis. ku diis rek ñu bàyyi la nga diig. ku woyof ñu yëkkati it yàlla. Mhm. sëñ Modou bari na lu mu am rek woyof ak ku may. Euh, woyof mënta euh, te gis nga dafa am benn nitu yàlla nee na bi muy wut yàlla. dafa seet bunt yi jëm ci yàlla waaye bu ci làmb dafay fekk rang bu gudd ak boo xante bu metti oh. nee na bi ma demee ci julli fekk naa fak rang ak boo ma dem ci joxe sa alal euh, dem ci jokk bokk yu baax yëpp waaye nee na damay fekk mu xat ma ni fii dama fi yàgg waaye du dem hmm. waaye nee na bi ma dikkee ci buntu woyof damaa fekk mu nu yàng ñu ne ma jàll eh, sayidil xaw lu am solo la cib julli mu nga wax hmm. hmm. sëñ Modou nag bari lu mu réussir loolu ko ko may euh, mu mel ni lu lu lu lu lu lu yoon wi war a jàngaat la woyof euh, lu baax cib jullit la waaye lu baax la ci kër sëñ Tuubaa te bokk na ci valeur yi nga xam ni doon nañ ko xàmmee yoon wi Eh, waaye fu mënta weesu. Eh, ñi nga bokkal sëñ Touba. Eh, nga xam ne li tàmbalee ci sëriñ Abdoul Ahad ba ci sëriñ Mourtada ñëpp sëñ Mour mat na leen waajur. waaye sëñ Touba mi ñu bokk xoolee na leen doomi sëriñ ba kenn ku ne dalaa yëkkati teg ci kawam. te njàngale mu yàgg bu ñu yàgg a dégg am ci loolu soxna may nettali ko ñu dégg ko ni mu leen daan toppatoo ba bu ñu xéewloo sax mu jox leen. Euh, yéeréem leen fomp leen seen loxo ndax yéenay sama doomi sëriñ loolu dafa mel ni lu jeex la te war jeex lu war a dellusi la bu ko defee kon euh, sëñ Modou euh, ci tënk yariti maam Thierno. Mm-hmm. te maam Thierno mooy yariti sëñ Touba. dëgg sëriñ bi ma wax ni Ibrahima la si lam yu faarix nii fii kibar fii si xar yi wala fii kibar yi. waaw nee na Thierno. yu sa tàggoo man mës sa tàggoo man. ci ndaw ak ci loolu kon mooy lu ne ci Ceerno maa ko ci def. Mm-hmm. nee na mës sa wuuteeg man mësumaa mooy. Mm-hmm. mooy sama ndëgër laay mooy sama mbagum ndijoor. Mm-hmm. Euh, sëriñ bi doy loo woon na ko nag ba jox ko moo Moodu mu def ci moom lu bari. mu doon jàmbaari sëñ tubaa joo xam ni euh, ci euh, sariha ju mat sëkk ju leer naññ ju wër cëng. Oh. moog sëñ Mbàkke mi ci lañ doon dox. Oh. sëñ Tuubaa gis nga Alaaji Seex lislaam rek la fi indi. Oh. ak saree juleer leer daañ ñu juwoo koŋ. Eh, sëñ Mor Lamine Gueye si moo tax daan na wax ni li ma sante yàlla. Oh. mooy bi sëñ Tuubaa wootee ma wuy si. Oh. fekk mu woote sariya. ak sunna ndax nee bu xam naa ne bu sëñ bi wuy wootee wuy si wu ma man na maa yàqule te bu ma wuy see fekk fi lu dul sariya du ma ci man a ànd kon nee na loolu laa sant yàlla. Eh. loolu nag mu mel ni. Mm-hmm. Eh, danoo toll foo xam ni fi mu nekk nii. en tout cas ñuy jàngale war nañoo dellu ci loolu euh, ndax bu dul loolu euh, sëriñ bi du dëgg la sax yée yée yéemu na dees na ko yéemu waaye sëriñ Tuubaa das ko war a roy fa tashabahu fa in lam takunu mislahum inna tashabuhu bil kiraami falaahu euh, yéem gi sëriñ Tuubaa mën naa neex ci suñu xol waaye du bari résultat ci suñuy jëf waaye li ëpp résultat man noo jariñ ci suñuy jëf mooy sëriñ Tuubaa nu roy ko ma roy la firiwul ni dama lay doon te Serigne Saliou wax nanu ko ci wax ju leer euh, ni euh, mënumaa roy Serigne Touba ne pexem saytaane rek la sëñ bi ñu war a roy la oh. sëñ Modou nag da doon dox ci euh, anam googu gis nga mboolem sahabatul kiram wala alxulafaawul arbaa ñi seen jikko yi ñu ràññi ko boo ko càmbaree lenn loolu da ko fekk Cheikh Mouhamadou Moussa boo tuddee Seydina Omar teey ga dal nga fit wa xam-xam nga jël ga responsabilité ak ak ak management maanaam manage boo ko xoolee da nga koy fekk ci si mbiru saa fekkee mu mat sëkk mhm. waaye fiitu Seydina Omar wala muy rëy rëy rëy woyof ga mu àndalan euh, ak euh, ak ak xam responsable liñ ko jox ndax euh, taarix nett leen ni Seydina Omar daana jikk ba yàgg guddi muy wër am na bis day wër ba fekk jigéen ju teg cinam ay goreem di jooy muy xam rek Seydina Omar laaj ko Euh, mu ni ko euh, samay gone di xiif la ñuy jooy mu ni ko ah li ngay togg nag mu ni ko togguma dara ndox rek laa teg muy baax ñuy ñuy jooy ba ku nelaw ba sa borom ni la rek bu ñu nelaw ne ñoom ñëpp ma tekki mu ni ko xanaa kilifa gi da koo yëgul mu ni ko bu ma waxati waxe Omar kooku kay ay waxam tam Omar xamul li Omar lay waxam waaye Seydina Omar dal di fay jóge wax feeñuwu ko waxu ko dara dal di fay jóge ak am àndal euh, dal di wut dund ba doy sëkk dal di koy indil loolu suñ suñ ma da cee jaar dafa am bis andak ànd ak sëñ dindi moy seigne Madiba silla hmm. yi wër Touba da dan def lolu hmm. yi wër goudi ba toll ci buntu kër bo xamni ni euh, kër yi mag da dan am aw bañ aw bañ gatché ñu ngi taxaw ci ginnaaw bañ gatché waye ñu ngi dégg borom kër gi lu ne mi ngi koy yak seigne mourou lu ne mi ngi koy yak seigne mourou mu taxaw déglu déglu déglu ba yag mu ni seigne dindi li ngay dégg lo ci xalaat mu ne ko ñaaj fekk ko ci biir mu ne ko ëpp na def kon nga yam ak mom ñu hmm. ko kii am lu mu bëgg xam te xamuko wala mu am lu mu bëgg am te amu ko rek danga hmm. may gëstu ba xam yooyu lu mu ci doon waaye bi mu gëstoo ndekk na fekk lii dalal nitu fi daa war kee dal moom daa am daa manqué dund rek hmm. ma nga daan sëñ Modou ah lu fi ñëw mu téye ko séddalewul nangam di ñaxtu waaye bi bi bi bi sëñ bi xamee loolu bu waxee sëñ Modou daal dal newul lu ko doy ci dund ñu yónnee ko ko fu mu jaaran wax lu dul noonu moo fa jaaran weddi ko loolu nag mbooleem saxaabatul kiram koo ci topp ba ba jikko yu ràññiku yooyu da nga koy fekk sëñ Modou euh, xam nga sëñ Cheikh mhm. euh, nit ku ne sa waajur nga fonk dëgg la nit ku ne sa waajur nga mhm. euh, sëñ Modou suñu borom euh, defal ko tawféex yi waajuram yi nga xam ni ñoom la ko sëñ Touba bàyyeelan muy borom daarul moxti mhm. Cheikh Sidil Mokhtar ba Bassamba sëñ Mbacke Boussa ñu mag ñooñu ñëpp dañ koo jiitu dañoo wàccee ci kanamam waaye li tax seeni taaw wëlbati ko jox ko seen bopp mooy dañoo gis ne mu defan seen waajur waaye ku ci sëñ Modou cofan sa wajur rek boo boo boo boo jógee seen sa yoonu bopp. dëgg la te te fekk na fees ga dell nag. dëgg la ndax sëñ bi la te ku ne jox la la. dëgg la euh, loolu dund na kook ñoom ñëpp euh, gis nga bi borom daarul Moxti wàccee ab liggéey euh, sëñ Modou Awa Balla ci mag ñi la mhm. xam na la mu war a xam toll na mu war a war a toll. Mhm. dañoo dal di denc borom daaru te sëñ Modou fekkewu ko. Mhm. bi mu ñëwee daaru li mu jëkk a wax lu tax ngeen denc saa bàyyi te fekkewu ko waaye booba li sëñ Modou Awa la xam mooy. Euh, borom daaru mii ni mu demee sëñ tubaa bu sëñ Moodu ñëwee dana ko yóbbu ci wetu sëñ tubaa te nag xam borom daaru moom euh, wax dëgg ne daaru rek a baax ci waa daaru mm-hmm. moo tax ñu dal di koy denc te ñëwul waaye bi sëñ Masamba euh, wàccee bi mu koy taxawu daa wax keroog ni maa ngi door a ñàkk baay lay ndeysaan noonu la def ak mag jépp Euh, moom ak Cheikh Sidil Mokhtar xam nga ni bu euh, Cheikh Mamadou Mamoun wëlbati ko. Mhm. Euh, jox boppam Cheikh Boussa. jël sëñ mu roxee jox ko mu yar ko. Mhm. xam na ni na mu def si wàllu Cheikh Anta tax. 1921 ba ko joxee Ñaaxin. mu ngoog 21 dëkk ba ak dëkk. ak mbooloo penc ma ak mbooloo ma ak taalibe xamuñu ni mhm. daaru ñaaxeen dëkku Cheikh Sidil Muxtaar ba pare ba pare ba pare sëñ gaawaan dani ko kenn munta fayanteek sa baay nag mu ndax lépp moo ko defal ñëpp jéem maa fayanteeg moom waaye dañuy doon ay gor ba fekki ko est-ce que war see kon taxawaay yooyu lu mat a delloo si la lu mat a jàng la sëñ Moodu di boroomu fit nag ndax sëriñ bi sa xam sëñ Tuubaa ku amu fit la dëgg la ku dër bopp la itam sëñ Tuubaa ku amu fit la ku loolu nag sëñ Moodu da ko ci moom gis nga bu ñu anticiper ci fani sëñ bi mujj al ay amuhul al axira dañuy wax ni àllarba fukki fan ak ñett ci aw tamxarit tamxarit day weeru sëriñ bi ndax ci la feeñ euh, ci la làqu waaye bokk na ko suñ Moodu ndax suñ Moodu ci la feeñ euh, àllarba fukki fan ak euh, ñett ci tamxarit sëriñ bi dafa génn julleendoo ak nit yi da dafa dafa fatu laa bëgg a wax bi mu fatoo àllarba alxames ajjuma gaaw fukki fan yaa juróom benn bi mu génnee ginnaaw takkusaan julleendoo ak nit ñi ba noppi waar leen dénk leen euh, delloo leen ci yàlla soññ leen euh, def ko ginnaaw timis def ko ginnaaw gee fatu euh, bala ca topp ci ay fan sun suñu borom dikkakub dogalam ca altine ca yoor yoor sëriñ daam abdourahman wax nañ ko nett daa ko ay yoon sëriñ daam abdourahman moo ko wax te nee na sëñ basiroo ko wax mm-hmm. nii bataaxel bi nga xam ni sëñ moo moodu fekk na ko ci sëriñ bi ginnaaw bu delloo ca boroomam sëñ bi bind na ca nii بعدما صليت ضحى يوم الاثنين ارتضيت جوار ربي loolu nag nun ñii kenn ku ne ci nun waxtu wi nga mujj a xool heure dem biig moom nga xam waaye xamoo kañ nga nelaw kon nag ki mën a xam moom kañ la delluwaat ca boromam kooku moom meneen mbir la bokk wax damaa sallaytu duxaa yawmil isnayni irtadaytu jiwaar rabbi ginnaaw yor yor bi ma jullee yor yor altine ba noppi daal delluwaat naa ci sa borom waaye ci dimanche fukki fan ak juróom-ñaar yooyu nag nga fekk moom sëñ Moodu ci Touba Kayal Euh, mu mu muy mu xëy mag ñi niñ daan def nga xam ne dañuy naane si kafe ci néeg sëñ bi euh, ñu ñu xëy di naan si café euh, muy xelli ba yàgg mu génn ci buntu gannaaw ba jëm ca tookar ba taxaw fa ab diir sëñ Mor njandam fekk ko fa mu ne ko Mor damaa jaaxle mu ne ko Mbàkke loo jaaxal mu ne ko daaw am lu wax ak man ci biir néeg bi ni ma boo amee ñeen fukki at dootoo am kilifa te sama ñeen fukki at tey jii la tegal ayu bis te léeg li fekk sëriñ bi ne may kilifa mun ko ah, loolu da doy nag jaaxle waaye ñu dal di tàggatoo mu tàggatoo mbooloo ba dal di leen waa baax na eh, damay dem boori tubaa danaa dellu si fan yi eh, bi mu ñëwee Touba eh, jóge fa jaar na jaar na Kayel dëkk Amadou Ba Khourédia Osnul Mahab waaye bi mu ñëwee Osnul Mahab Baye Si Ndiaye Anta nee na daa duggaat ci kër ga génn waaye gis naa ko oh. ne mi ngi sol grand boubou bu baaxa grand boubou bu palmaan Euh, rango Samba Sembeek euh, Baxa sol dàll yu euh, yu mboq nga xam ne ko ku ku service la te mën a sañse fa la jógee dem daaru ñaaxeen fekk fa fekk fa sëñ si la ñaaxeen mhm. mu ne ko ah ginnaaw ñëw nga de tool àllarba yi woote woon nañ ko waaye ginnaaw ñëw nga munu ko kon jigéen si leen bis bi ñu daal di koy woote ci ëllëg sax biñ jogi jógee ca toolu alarba ba liggéey ba jeexee bu ne ko ginnaaw nit ñi dégg dañ fi moom danañ sawar ba liggéey bi jara ko ni dajaleel mbooloo ma foofa ca tool ya mu seet garab gu yaatu mu dajale fa mbooloo ma fa fekk ma leen dal di si ci kër gi jant so mu julli timis julli gee euh, sëñ mo si la nee na bi mu dal di lal euh, ab euh, deram ci digg bi di julli la ko soob dijang di jàng alxuraan nag te ko jang ci kaw nee na mokkalif gu rafet ak baat bu neex waye nee ma ngi bëgg taal bu ko bu ko taal ma bëgg a delloo bunt bi bu ma bu ko delloo nee na ma jaaxle lool ndax man wax dëgg ne ci néeg bu nu woo ko tal nu ko tëj waaye waaw nee na ma it ma dal di waaf rek ci bunt bi waaf ci bu néeg bi ba fajar bi fajar jotee ma dal di teel a fëgg soxna yi di leen jóg leen defar dékki bi ñu defaree ndékki indi ñuy ndékki eh, nee na am ci mag ñi eh, fekk na boobu si Ablaye Diop lew ne mi mu àndal ndax moom la dajeel daaru moxti ni ko bu fekkee wata bi ndox mi matte na ko nga bijjanti ma ba daaru eh, daaru ñaaxeen neen sëñ Ablaye ma rukk ndey ci sama kii ma geestu mu ne ma sëñ bi ginnaaw coono yi métti naak ak yëf te nit ñi mbooloo bi xamuñu ni ba tey mi ngi ci kër gi tee teemu fee noppalu ab diir nee na mu dal di ma ni kooku lu mu wax ah, moom de da laa yërëm ci kii mu ni tee nga fee amoon ay fan noppalu mu ne ko génneel bagage yi dal di la waxaat ak man ci néeg ba nee na ma nga ñëwal jaaree mm. fa la jógee jaaraat ci ay taxam Cheikh Sidil Muxtaar euh, fekk na euh, commandant ñëwoon fa mu euh, gunge ko bay génn door nuyoog si ma ne ko nuyoog ak commandant mu ne ko déedéet mu ne ko ah bu nga xamante ne yegg si nga ma nuyu leen mhm. xanaa ngan nga ma doon dig tey lay doon mu ne ko ah, waaw dama yéene naa ko waaye damaa ci yitte mu ko da ngaa yaakaar ne omo añ mu ne ko ay Mbàkke yow xam nga am nga añ ku yendoog yow añ mu dal di ko fay jox ak baa ak saakob cere baaga sëñ Mor Lamine Touré mi yoroon soxna Asugawaan moom la sëñ bi daal di dem ci këru boppam gi nga xam ni eh, fa la sëtam bi nekk Cheikh Mouhamadou Moustapha Nibo ji eh, ne fa euh, sëñ ma Lamine Diop Dagana fa la ko fekk ni ko sëñ bi de fan yi moom gisuñu ko waaye mu ne ca euh, ñuy bijjanti gan ñaak ñuy nuyoo ko siyaare mm-hmm. ci tënk rek ba euh, jant so mm-hmm. ba mu yegsee fekk sëriñ bi ci melokaan woowu mm-hmm. dañ koo laaj ni ko bi nga ñëwee teg sa loxo bi ci jëmmi sëriñ bi xam ni suñ borom yegsi na ak lëm diggan bakkan bu ne ku nafsin saay xetil mawt loo yëg sëñ Modou ni am lu ma metti lool waaye nag jaaxle wu ma te foofa nag jaaxle yey na fa bu jaaxlee du lay yedd waaye nee na waaye bu jaaxlee lu bari yàqu mun yëg am lu ma metti lool waaye nag jaaxle wu ma li tax jaaxle wul it sëñ sëñ bi da préparé te xam nga li tax jaaxle yeey boo gisee alayhi salaatu wasalaam bi mu tolloo foofu la doomam ja waxan soppeem ba xaritam ba ni subat alayya masaa'ibun law annaha subat alal ayaami odna layaaliya yonent bi wàccee Eh, Seydina Fatima da sotti nañu ci man eh, musiba moo xam ni buñ ko sotti woon ci digg bëccëg mu doon guddi keroog loolu xew na bi sëñ bi wàccee waaye sëñ Modou nag am sago eh, ndax fit ak maîtrise ba ak waajal gu ko sëñ bi waajal ci loolu wax nañ ko ba tàyyi am na bi sëñ bi ni ko jox ma satala googu fekk satala gi sëñ bi da koo dese bunt bi sëñ Modou ne jàkk satala gi bunt bi topp ko mu ne ko teg wuti aw doj wu mu teg place bu satala gi dal di indi satala gi bi mu dikkee sëñ bi ne woo ah noo def ba bunt bi topp lu cadre bi mu ne ko dama koo yëkkati mu topp ma tegaat ko fa wut lu ma ko dësee ba noppi door a indi mu ne ko waaw bala ngaa jëleeti fi euh, mbir fi barab da ngay wut lu ko fa wuutu loolu loolu am njàngale la war am na am na lu sëñ bi doon junj moo tax préparation euh, boobu euh, ko sëñ bi préparé ci yu bari nag yoo xam ni jataay bi mayewu ko mm-hmm. moo tax bi loolu yegsee itam mu daal di xam li muy def ca la dal di euh, wooyee rakam ju baax seex Cheikh Mamadou Bachir euh, naka noonu Mahmadan Tànn ndax sëñ bi fi mu ne li li yéeme ci mbiram mooy léppam moo ko waajal. dëgg la. Euh, bi ñu ko fekkee foofu yi dañ ko fekk ci kaw romb jaan goo xam ni mhm. ay kaami la ko wër mu tëdd ca biir waaw ci njaareem dal di dellu ca boromam sëñ bi woo Cheikh Amadou Basir sëñ bi waxal na ñi nga xam ni ci seen loxo la war a mujj ñi nga xam ni ñoo ñoo koy ñoo koy yóbbu feebu na ñi nga xam ñoo koy waajal lépp sëñ ko waajal waaye li gën a yéeme ci defar gi sëñ bi defar te ñu te ñi mu defar seen dara yàquwul te te mu mat a jàng gis nga euh, rëg-rëg ji li muy bari lii léeg-léeg danaay wax nii Alaaji Cheikh Anta mhm. euh, Cheikh Mamadou Mountakha mii euh, bu ñu noon bu ñu noon bu ñu noon masalan bu ñu noon dañ koo yónnee convocation mhm. maanaam da nga dégg rëg-rëg joo xam ni doo xam lu mu doon mhm. waaye sëñ bi bàyyi ko ne fi moo gën a diis loolu ah, te gis nga bi ñu bi ñu bi ñu indee sëñ bi njaareem Touba di ko taxaw ba ba nodd fajar jot sëñ bu Buso mi kilifa gi te taxaw lépp moo ak mbool dañoo dem julli ji lañu war a julli def lañu war a def lépp ba noppi ñëw yeggale li ñu doon def <laughs> ba noppi ñëw yeggale li euh, am na ko dal di ah alhamdulilah lii de lëndu sëñ bi jàngala oh. mu ne kon ndokk ba bàyyiwuñ ko ci alhamdulilah bu ko defee kon loolu di jàngat yoo xam ni mm-hmm. sëñ bi euh, xam nga alaaj ci xadda mm-hmm. nit bu noppee amum xel yàlla waxatu la moom waaw euh, yàlla boroom xel yi lay waxal yoon wi nag dafa mel ni dañ cee bëgg a génne am xel euh, yenn kilifa yi sax soxlawuñ nit ko amum xel mhm. te te loolu du sëñ Tuubaa mhm. nit ku koy defar da ngay fexe ba am xelam wér mhm. mu doon nit ndax mooy tax yàlla man waaw mooy tax yàlla am soxla ci moom euh, sëñ Modou loolu la ko yàlla defal bu ko defee bi nga xamee ni loolu xew na ba sëñ bi ñëw tubaa te gis nga sëñ bi ba ngay wax naan sun borom tabaaraka mi ngi koy ñaan ni ko bis bu róogi di tàggoo ak jëmm ji maa ngi ñaan alayhi salaatu am fekke ko yëmul ca loolu bi mu ñaanee fekkee ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi ca la defewaat tawasul ci yaa rabbana ilayka aswa xaali bil Mustafa wa xamsati rijaali ñaan juróomi góor yu baax yooyu muy Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani Abu Yasid al Bustami Xaamidin al Xasaali Tayfur ibn Ali Maaruf al Karxi yi ñaan ni Euh, bis bu euh, mbir mi di yegg si ci man ñooñu nañ ko fekkee. loolu nag euh, ñu baax ñooñu ko fekkee nag xam nga émission bi sax mi ngi tudd Sirru Saalihin. waaw juboo nañ ci ni. Mhm. waa inda dikri saalihin tanzilu rahma mhm. ñu baax ñu fu ñu leen di waxtaanee. yërmande yàlla yërmande yàlla dafay wàcc. Mhm. gis nga nit ku ñàkk ku tàggoog bàkkaar ku ne. yërmande yàlla rek la tàggaleeg bàkkaar. doomu aadama bu tàggoog bàkkaar. yërmande yàlla moo la tàggale ak bàkkaar kon nag euh, nit ñu baax ñooñu bu ñu leen di waxtaanee mhm. euh, yërmande yàlla day wàcc waaye bu fekkee dañoo teew nag boole ca mu mel ni kon ginnaaw sëñ mi ñaanal na euh, na yonent bi alayhi salaam wasalaam teew juróomi góor yu baax rek yooyu ta seenu baax képp a tax nag sëñ bi di ko ñaan li tax sëñ bi ñaan ñu fekkee mbiram seenu baax képp la baax gu matale mhm. mu mel ni ne kon bu bis boobu dellusee ñu di ko fàttaliku boo amee dara ci baax taban ko la war nga ko fekke loolu mooy màggal gi ci ci ak leeral euh, euh, màggalu sëñ Tuubaa la euh, goo xam ni bis bi mu delloo ci boroomam tabaraka wa taala mm-hmm. te ñun ñëpp jàng nañu alayhi salaam daan wax ni allahuma ijal xayra ma alxaaka yàlla maa ngi ñaan bis bi may dellusiwaat ci yow muy eh, bis bi ma bis bi ma gënal ci sama muy bis bi may dellusi ci yow mhm. eh, lu yonent bi sa ma sa la sëñ bi bëgg mhm. lu yonent bi ma sa ñaan sëriñ bi ñaan na ko te sëñ bi lu ñaan yàlla may na ko bajjulu kulli kullakal yow ma maa xaddi boo demee moom léppam day màggal lépp yonent boo delloo ca mbindam ma nga naan allahuma mhm. inni as'aluka an taj'ala li xayra ayaami yow ma alxaaka wa xayra amali xawaatimahu sëñ bi bu ko defee kon eh, loolu mooy solos màggal gi bis bi sëriñ bi delloo ci boromam ñu di ko fay mhm. euh, tamuy bisub nooflaay di bisub mhm. fayeeku di bisub mbégte mhm. di bisub coono yu jeex di bisub xat-xat yu jeex di bisub génn ci loxoy nasaraan yi di bisub dem ci dëkk bi mu pàkk bi ko gën a loolu fa jóg bis boobu mooy dellu ñu di ko fàttaliku ñu baax ñooñu mu ñaanal nag ñu fekke ko bu bis bi ñëwee te nga am dara ci baax taman ko kenn waruloo ko gën a fekk barakallah Cheikh Mouhamadul Mamoun Diop ci waxtaan te waxoon doomi bàjjanam ja doomi nijaayam ja xaritam ba soppeem ba Serigne bu Bousso mu taxaw ko kon dafa mel ni ñun liñ def tey baatin da ci dugg sax ndax bis bi sëñ bis bi Cheikh Moustapha yóbboo sëñ Touba njaari eh, Touba te moom demul ndax sëñ sax fàttaakoo ngi nettali naan mu Moustapha dem na ci këram gu ndaw waaye nag Cheikh Moustapha mu salaali caabi <laughs> moom nettali na lu bari ci kaset bi sëñ sax fàttaakoo naan fa la ma fekk nettali na lu bari ñëpp dégg ko kon euh, cheikh moustapha day day day day day day ku mat euh, day ko xamni seigne touba ko wadjal def ci mom lepp mu mat nak seuk nekkal fi cheikhul khadim yalla nagn ko yalla fayal euh, di nuyu serigne Modou Khari Fagnang sal di tawb seigne Abou sal tew ci jotay bi ak rakam yim andal yep mu melni ni ngay wax yonnati bi alayhi salam an nak serigne sëriñ fantama di ca kank guiné fa fa tuddé tuddee mo seigne sëñ tuddé seigne sëñ fantama Fantamadi ñu fekk fa ku nan Cheikh Ahmadou Bamba Fantamadi oh. moy Khalifam mu nettali ñu ni ci làmmiñam mu ni keroog 1926 lañ ñëw Guinée ni ko Serigne Touba ni baayam moom sëñ Touba baayam Serigne Touba la ko moom moom moom la Serigne Touba tuddee moom la baayam tuddee Serigne Touba ci Ahmadou Bamba mu ni wax nañ ni baayam ni ko Serigne Touba dafay bàyyi ko baayam ni leen wérul kooku du fi bàyyi ko euh, euh, euh, maanaam asamaan ak suuf ñoo koy ñoo koy tàggee ñi nga ñi nga xam ni ay wëlliw lañ te man ci loo te man Chérif Fantama ci ñooñu laa bokk kon kon wérul nee na 27 nag bi mu nelawee nee na bàyyam nee na ko yonente bee fi jaar ni ko maa ngi jëm Touba Cheikhul Khadim moo moo génn àddina moom lay taxaw moom moo ñu nettali lii Cheikh Ahmadou Bamba ma ànd ak Serif Fantama di moom Cheikh Ahmadou Fadal keroog biñ ne biñ ko laajee sëñ Serif ni ko sama turandoo ban karaama nga xam ci moom mu ko moom daal daana wax naan sëñ Bamba ñëpp ñëpp la jaboote yilif na ñëpp waaye moom du duggee ci armée yi bàyyam du musaana nuyoo ci armée yi ñëpp ay fayandoo néew yëpp ay fayandoo nee na bàyyam daraan def loolu kooku nag moo joxe woon téeméeri junni yee ca jumaay tubaa ji te sëñ Fallou fayee ko sëñ Chérif Fantamadi mii ànd nañ ma ak sëñ Chérif ba Guinée ca barab ba muy ku yéeme koo xam ne nee na bi sëñ tubaa wàccee bi sëñ Tuubaa ñubbee àjjana nee na yonent wee ko ko yëgal moom Chérif Fantamadi yàlla nañ ko yàlla fayal Cheikhul Khadim sëñ Ablaye doy na sëkk fi mu bàyyee rek ci ni Cheikh Moustapha taxawoo ku tedd ki bu yóbbu ko Touba. moo indi raay bi moo fi def jumaa ji moo yóbbu Cheikh Bamba taxaw lépp jiite njaboot gi nag ni leen seen taalibe bàyyi la woyof gi nga doon wax Cheikh Moustapha euh, dafa bari loo xam ni nag sëñ sëñ sëñ sëñ Maamun la yàlla waxoon yonent bi da koo da koo da ko da koo roy ci loola fa bi ma rahmatan min allahi limta lahum wala kunta fasan alidan xalbi lan faddu min xawlik ku dégg loolu la moom Cheikh Mamadou Moustapha woyof na lool baayam yi joxoon na leen cër ba mboolem taaw yi baayam yi ku xool sañ Mor soxna ni mu ko defoon taaw borom sàmm ku gëmoon Cheikh Moustapha la te ànd ak moom te bëgg ko sëñ Modou Mamoun sëñ Modou Balla sëriñ Modou Bousso mi taaw sëñ Mbacke Bousso ñoom ñëpp àndoon ak moom loolu jikkoo koy maye aku melokaan ak mat gu mat nag sëriñ Touba sëñ Touba waajal ko na sëñ Touba ànde woon ak bokk yi mu ànde ko moom te nag sëñ Touba wax naan nit mën naa ëppalay mbokkam waaye mënut a ëpp mbokkam moom kat bi mu bi mu gën gënee mbokkam ba noppi daa wëlbatiku nag ñaan wa jaxal jameel ixwati wa nasabi fii rahmati yow ma si day las kon moom ku ne la nga baax la rek la bokk ak yow sëñ Ablaye mm. waxi sëriñ Touba ci sëñ Mbacke Bousso ndax li sëñ Tuubaa wax ci sëñ Mbàkke Bousso moo gën a kawe wax ñëpp te wax na ci sëñ Mbàkke lu loo xam ne mosu ko wax ci kenn sëñ Mbàkke tamit wax na ci sëñ Tuubaa waaye dégg naa benn bis docteur eh, Serigne Khadim Bousso seen doom sëñ fàllu sa jarbaat mm-hmm. eh, eh, nee na sëñ Omar moom xam nga moom sëñ Mbàkke rek mm-hmm. sëñ Omar Bousso xalifa bi moom sëñ Mbàkke rek jéggiwul fenn doo waxee mun la sëñ Mbàkke doy nañu sëkk mm-hmm. ñu ngi ñu ngi koy ñaanal ci armeer yi miir bi di ko ñaanal ci daara yi sëñ Mbàkke Bousso ji di ko ñaanal ci sumb yi mu bëgg sumb yëpp yàlla na ko àggale te ànd ko mboolem taalibe yeeg rakkam yeeg njaboot gi mu mel ni euh, dañ na dem nañ ba sëñ Tuubaa sax ni ko bul bul bul bul waxati ci man dégg na waaw kon kooko xamee na sëñ Tuubaa tamit nu ko kenn xamewul waaye sëñ Tuubaa xamee na ko moom nu mu xamewul kenn waxi sëriñ Tuubaa ci sëñ Mbàkke bu suñu Ablaay Jóob Bichir waa maam Cheikh Anta Samb nu ngi nuyu sunu soppe suñu sëriñ sëriñ Fàllu Buso Xasan ak délégation bu mu àndal yëpp di leen jox seen cër di ziyaarewaat imaam Ibrahima Bousso bu baax ci taxawaay bi di sant imaam Cheikh Awa Balla Gueye ci kàddu yu rafet yi mu fi jotal mhm. ñu ngi koy sant di ko ñaanal di nuyu sëriñ moodu Mamoun Diop ci leeral yu am solo yi mu fi indi lépp aju ci dunduk jàmbaar yi lislaam sëriñ Mouhamadul Moustapha al Karim yàlla na yàlla fay leen ñoom ñëpp di bég lool ci laaj boobu nga nu laaj ñu jëm ci jàmbaar borom xam-xam dañu buñ né diw amna na xam-xam nako ko borom xam-xam ya wax waye bu ko kat ya ak ñinga ni seen sop rek la xol wax ko waye ñi am xam-xam ñoo ni Buso amul kuñ koy dendalé ci xam-xam bokku na ci ñoñu sëñ Ibrahima job al yi bokku kenn wut xam-xamam ak limu bind ci làmmeñu arab yaram ak limu tag tàgg bi nga xam ni tey na ci programme bi nga xam ni ñi doon jaar ci téere boobu mag boobu di màqaama boo yemee ci diiwaan bi bu def ci sëriñ bi danga xam la nga war a xam ca màqaama yépp te lépp tegge na di ay woy yu rafet bu jëmee ko ci cheikhul xaddim mhm. sëñ Ibrahima Diop bi muy leeral dundu sëñ Mbàkke Buso ak ni mu mel dafa wax ni huwa al aalimul mashhuru bi zuhdi wa tuqaa mhm. wa bil ilmi wal irfaani zu rutabil ulya loolu mu njëkk a wax bayit boobu rek jàngale na kanay sëñ Mbàkke Buso هو العالم يعني كي دك دك ما يبرم خم خم نيت من نام خم خم تدوسي وتي خم خم دوسي والخم خم واي هو العالم المشهور رام خم خم بو خم ني خم خم بي دافا سيو تي غوخ ييب فوكو تودو رك نييب خم ني موم غاي واخ سيغ باكي بوس اك تاريخ بو مانا بوك رك داغاي نانغو خم خمو سيغ باكي بوس كو ني تي ريو مي تام داغاي نانغو خم خمو سيغ باكي بوس كوما جاخا سول غاني دك دك كي مو راو kon huwa al alimul mashhur waye nak bi zuhdi wa tuqa bi zuhdi wa zuhdu moy firi deddu aduna hmm, ak dagal yalla ah ta bi alayhi waxon na Abdullah ibnu Mas'ud Niko beug nga am yalla lam lay jox lepp li ci yalla nga am ko moy deddul aduna yalla ku deddu aduna mu jox lay mbiram kon ku deddu aduna la won waye ku ragal yalla bi tuqa ragal yalla xam ngeen seigne touba waxon na ni innal ladhi لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون كيغا خامني نينا راغلوت يالا بروم دونت دافا جيخال فنوني خام خام ييب ماتير ييب مو جانغلين تا راغال يالا امبوكو سيغ توبا نينا كوكو خامول في مان دارا يالا بيمي واخ ني گن في موم ني راغال يالا لا واخ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شهوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم kon ña gën fa yàlla ëpp faran mooy ña ragal yàlla dénk na ko fa bari ba mu ne yaayu annaasu taqu rabbukum allazi xalaxakum min nafsin waaxida moom la doore jànkati alxuraan yi dañuy wax ni xaaju kaw ak xaaju suuf ñeenteel bi saaru xaaju kaw yaayu annaasu la doore ci ragal yàlla la yàlla wax ak gaañ xaaju suuf ñeenteel bi saar ba tam la dàkk yaayu annaasu taqu rabbukum inna zalzalata saati shay'un azimun yawma tarawnaha ila axiri foofa tamit ca ña ragal yàlla lay wax kon jëfe na avertissement wax ak nit ñëpp ci ñu wattandiku ay tereem ñu góor góorgóorlu am lu ñuy wax ragal yàlla sëñ Ibrahima Diop nag wax ni sëñ Mbàkke Buso mooy boroom xam-xam bi nga xam ni dafa siiw ci ñépp ci ak dëddu àddunaam ay ak ragal yàlla ndax loolu rek la am mu ni déedéet wabil ilmi ak ci xam-xam bi nga xam dafa peeg lépp xam nga liif ak laam jankati yi xam nañ lu muy indi ci wax moy firini xam-xam ak lamu ëmb da ko làqaale wal irfan xam yalla tam yalla da ko baxi sëñ Mbàkke bu sumuy ko xam yalla muy way zurutu bil ulya borom daraja ju kawe la kon ku am daraja. mana xam ñi am daraja ndax ñom ni ñi natt nitu yalla ni am daraja ju kawe dañ koy natt ci ragal yalla natt ko ci mandu natt ko ci xam-xam natt ko ci dëddu natt ko ci bëgg yalla natt ko ci taxaw guddii doo war wax ci seen maandu te ni kii daal moo yor dara jaju kawe ja mu wax loolu ci sëñ Mbàkke Buso ki ngay wax ko mu doon mu ni wa aksara ahlal asri fiqhan bilaa miran képp ku mu bokkal jamono xam nga al asru mooy jamono waxul sax ku mu bokkal kër waaye jamono la wax moom ñi mu bokkal jamono ñëpp moo leen ëpp xam-xamu fiq ci lu amul benn werante mu ni kon képp ku ci werante rek mooy koo xam ni xamu fiq waaye boo demee ci bokk ci fuqahaaw yi xam fiq danga xam ni sëñ bu Buso moo ci féete woon kaw képp ku mu bokkal jamono ndax loolu rek mu ni déedéet wa aswabahum raya moo leen gën a juble am xel xel mu jub la am ndax nit bu ragalee yàlla xel mi day jub waaye wa ajwadum kafan ténkam moo leen gën a tabe te yàlla buy wax gaaya mi la ma leen wërsëgal dañ ciy joxe la wax hmm. alif laam mim dalikal kitaabu لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون يعني إنفاق في سبيل الله تتجافى جنوبهم عن المداجع يقعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون كون غا يو ايغا خامني لا نيو ام دا نكوي ديبانسي وات سي يالا واجودهم كفن موي غنا تابيلي اب تينكو لوخو نخلام دان جوخي واي وا اسكرهم شايا اي جيفم ci yoonu yàlla moom la yàlla gën a sant gën koo gërëm ndax jëfam jëpp da koo teg ci xam-xam ak ànd ak ku mat a àndal ba am ngërëmam muy Cheikhul Khadim seen ànd seen alaaxa nekk lu nu door ci njaal njàlbéen ndax yoonu murit ci njàlbéenam la sëñ bu Bousso di ànd ak sëñ Touba ñoo àndandoo taxawal ko ci njaal njàlbéen tarbiya bi sëñ Touba di bëgg ci nitam ku mu gërëm ba wax ni boole nga sifaatu saadiqil murit te bi muy wax ñeent la sëñ Touba wax sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xawfa ixtiraar asidqu fi mahabbati cheikhi abad suma imtisaalu amrihi ay su warat wa tarku liictiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alli fi ma xataraaw wa maahu salabu lixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hazihi sifaat min almuridina fa yudriku siqa fanzur fi lataifi shahraani tajidhu kal yaquuti wal marjaan loolu la Sëñ Tuubaa bind kon ñeent yi tax mu wax ni diw murit saadix la yépp mën nga ko nangul sëñ bu so ndax sëñ Tuubaa ko seereel def ko ci moom ndax njaal benn la ànd dellul ci sëñ Musaa Ka dellukaay bu mag la ci yoonu murit sëñ Tuubaa ko yar fekk na fi sëñ Tuubaa ndax 1891 la feeñ ci ndiliki sëñ bee ko yaral boppam sëñ bee ko jox ndigalu bindit ni ko toppal ci say mag roy ci ñoom soo may woy woy ma ci làmmiñ wiñ ma xame 1927 avant sëriñ bi fatu fatom boobu ku dem ci téere bu ñuy wax wasiyatu niswaan moom moo ko bind wax na ni sëñ bi nee na sëriñ Mbàkke Juuf na leen wóor ni sëñ Moussa Ka yor sama làmmeñ di wax ci sama ginnaaw te xam ngeen ni li mu doon wax jàngkat yi buñ dajaloo woon jàng ba sonn mën nu woy lu nu jege lool ngay xam ne ndimbalu sëñ bee ci tàbbi kon source la ci képp kuy gëstu nga dellu ci moom defal na marché bu rafet sëñ Mbàkke Bousso bi mu wàccee liggéey 1946 dellu ca marché ba la mu wax dañu sëriñ bi day ta dib xaritam wa fan ngay jaar ba sëriñ Touba def la xarit fan ngay jaar ba sëriñ Touba saxal ni yow xaritam nga boo amul mu ndo nek xaritam ndax sëriñ bi neena ko ne la nga bax le laa bokk ak yow mu ni sëriñ bi day ta dib xaritam di wéttalam di anda dom di wayam xol li seigne Moussa karabale Rabbale bi day mbokam mbokum ñepp xamna ni mu bokkeek bokkin wu duggante la ci wàll wàll yëpp ndax danga naan wéejuru seexul xaddiim wu góor ak wéejuru sëñ Mbàkke Buso wu jigéen ñoo bokk benn baay bu leen meñ nga dellu ni wéejuru sëñ Mbàkke Buso wu góor ak wéejuru seexul xaddiim wu jigéen ñoo bokk ñaari wéejur sëñ Buso be mi ko meññ ak maam Jaara Buso mi meññ seexul xaddiim ñoo bokk lépp hmm. ku sëñ bi teel woy la minal murtaja gufraana zil arsi mawlaahu ilal xidri mil xin ziisi man xalla charwaahu sëñ Busoobe la wax waaw sëñ Tuubaa way loolu sëñ Busoobe hmm. ki nga xam ni kon dañuy yaakaar ci moom jaare ci moom yaakaar ci yàlla sunu borom jaare ko ci yarantu bi mu defal nu njéggalam waaye ma jëmee ko ci kan ci sang boo xam ni néew na nga gis ku mel ni moom sëñ bi ci wàll yëpp daf koo matal néew na ko gis ku mel ni moom kooka moo meññi sëñ Mbàkke Buso moo maam jaare Buso mi nga xam moo meññi sëñ Tuubaa ñoo bokk lépp kon sëriñ bi day mbokkam tadib xaritam ndax sëriñ Tuubaa pour mu xaritoog yow da koo bindal boppam sëñ Mbàkke bu soob dafa bind eh, ay bayit sëñ Tuubaa sëñ bi tontu ko ba mu koy tont dañu ko fa minni ilaa man maala bii li luqyaahu xalili anisi man radina sajayaahu loolu sëñ Tuubaa ko wax sëñ Mbàkke bu <laughs> nee na ilaa man wax jii may wax man sëñ Tuubaa maa ngi ko jëmee ca waaja nga xam ne sëñ Mbàkke bu lay wax kooko loo ca wax mu ni bala ma lay wax kooko li mu doon ci man dama lay wax lan moo may dal ci moom ilaa man maala qalbi li luqyaaw sama xol man sëñ Tuubaa day toog ba léeg-léeg mu namm sëñ Mbàkke bu so mel ni lu jeng di ko wuti ji bëgg dajeeg moom sama xol man sëñ Tuubaa day toog ba léeg-léeg mu mel ni ku namm sëñ Mbàkke bu so bëgg a jeng wëri ji ko pour dajeeg moom ilaa man maala qalbi li luqyaaw ñu ne ko ba tey Mbàkke wax góoñu ki ngay wax ku mu doon ki mën a déclencher loolu ci sa xol kan la yow sañ Tuuba mu ni xaliil yi mooy sama xarit kon li ma waxoon ni sëñ Moussa Ka wax na ko sëñ bi dëggal na ko ci xalima xaliil yi mooy sama xarit la wax aniis yi mooy sama wéttal sëñ Tuuba mi waxoon alxuraan lay wéttali ko moo nu waxaat ni sëñ Mbàkke Buso sama wéttal la kon sëñ Mbàkke Buso kay alxuraan la juy dox alxuraan juy dox sëñ Tuuba moo ñu waxoon alxuraan mooy sama wéttal moo ni sii la waxoon kon su del si waatee waxaat ni xalil lii sama xarit ani sii sama wéttal man mooy sëñ Mbàkke Buso mi nga xam ni radi naa gërëm nañu sa jaayaahu jikkoom yëpp kon sëñ Tuubaa ba bala mu laa xool ba sa jikko yëpp mu gërëm ko ni yëpp neex na ko loolu lu jafe la mbokk yi mu ni jikkoom yëpp gërëm nañ ko lan la tax nag sëñ Mbàkke Buso mel noonu mhm. parce que danoo bokk fi ñu meññi koo moog sëñ Tuubaa mhm. te sëriñ bi mës génne loxoom ci moom sëñ Mbàkke Bousso àgg na ci am na ñaar ci ay leeram muy sëriñ Baaxir Bousso ak sëñ Mawlaayu buso mhm. ñoom ñaar bi ñu jàngee alxuraan ba wattu sëñ Mbàkke Bousso bi mu leen defee defalee téere bi yàlla ba nu wattu ko mhm. def leen a jàpp dem ba ci Cheikhul Khadim yaakaar yi jàmm ba mu ñëwee mu ne ko Mbàkke njaboot gàngoog def naa ci ñoom téere sunu borom ba wattu nan ko mhm. damaa bëgg na li des ci funooni xam-xam yi ak yar beeg lépp nga saytul leen ko sëriñ Touba lam ca tegoon mooy sëñ bu soo yeewu raxas na ay ndabam ba mu set amul lum ci def mu ñëw ci man ngir ma defal ko ci dinaa ko ci defal lu mu xamul ak lu mu mës a gis. moom rek te yàlla dimbali na sëñ Mbàkke Bousso ba alaaxa bu rafet boobu mu séq ak sëñ bi àgg nanu ci ni njabootu sëñ Touba tooge ci xilaafa noonu la njabootu sëñ bu sa tooge daa xam nga ni julli yu juróom mooy doomi sëñ tuubaa yi toog ndax da nga naan sëñ Modou Moustapha 1927. ba 1945 ñaaral bi khalif nga ni Serigne fallu 45 ba 68 ñettel bi khalif nga ni serigne abdul Ahad 68 ba 89 jóge ci ni serigne abdul Khadr 89 90 ni Serigne saliw ba 2007 juróom la mi julli juróom nga dem ni serigne Mbacke buso 46 la dem serigne Modou buso 46 ba 1971 mu dem serigne Mawlaaye buso jël 1971 ba 1983. mu dem Serigne Baaxir jël 83 ba 93 mu dem Serigne Ñaaña bu sa jël 93 ba 96 mu dem Serigne Matar bu sa jël 96 ba 2010 doom yi mat na <laughs> kon julli yu juróom la ñu joxoon ñoom ñaar ngir alaaxa bu rafet seen àndandoo nuroo gi nu nuroo ay mbir ci lépp sëriñ bi tàggatal ko boppam yoonu murit ci njaal benn bi muy sosu ku nekk xam na ni sëriñ Maxtaar Pend Si mi nga xamni ni jur seigne malik bassin si. ak seigne Mor Xaris si. ko ne xam fi mu tollon ci wilaya mm-hmm. fi mu tollon ci listaxaaram. Mm-hmm. kero bi seigne Touba di dem nara gaday seigne sëñ bu solo andal, te bobu seigne bi amone yitte genn rew mi dem ca Màkka. Mm-hmm. waye bi nu ñewé sang bu tedd bobu fatu xol ko genn dani seigne Touba gis na la nga bëgg dem fa yanantu bi ali sallallahu alaihi wasallam matu ta dem de togal li yonent bi yoron lepp yaa koy donn yaa koy jël yaay hmm. nek khadim rasul wa bu wér la sëñ Maxtaar Penda ko ko xon jamono gi ñew lepp jam ñepp ci sa loxo ñu mujj mborom njabootu islam di nga leen yilif deug la deug la ta su boba sa rak ju tedd ji di sa mbokk yene and liggey bi tok leen mu wéttali gumboof la ko suñ tubaa fekkoon mu ngoog ngoog gumboof ci saabu hmm, nga gis ni seen and bobu ñu and depuis ca kumboof bobé and ganu and ñom ñaar mok sëñ hmm. Mbàkke busu dem nañu ba lem mu ñu tegoon di ca jëfandiku ñom ñaar dem nañu ba kaasu wit ci ndox ak ngëbu baraay moom la sëriñ bi di jëfandikoo moog sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke wax na ni ku amoon yax la am kàttan waaye li tax mu mujj jeex a jeex a jeex ba mel ni jëmm ju tuuti mhm. tax kook sëñ Tuubaa moom a ko yóbbu loolu soxna moom mi la ko wax soxna Barakatu Buso mi ngi topp waxtaan wi moom mi nga xam ne mooy doomi sëñ Mbàkke Buso ak soxna moom bintu Xaadim Rasuul mhm. di kilifa nag ci ñëpp mat kilifa ñëpp soxna Barakatu yàlla fi yàgg lool te ak mbooleem njabootu sëñ Mbàkke Buso gépp kon soxna gàdd yàlla na ko yàlla doon wér ak kàttan ba mu gunge njabootam gii nga xam ni tey ñay yeewu gédee ñëpp ñëpp ay taalibeem lañ ay njabootam lañ euh, léppam lañ yàlla yàlla guddal fanam te wéru ko mu ngi topp jotaay waaw kon lu ma doon waxati kumboof mu ngoog ca baraaye ba kon noonu la taxoo ak sëñ Mbàkke Buso mm-hmm. nga xam ni ngëbu baraay boobu moom lay jëfandikoo moom ak kaasu wit ci ndox ñu koy jëfandikoo loolu nee na moo dem ba def jëmmam mu tuuti waaye moom boroom kattan la woon waaye takkook sëñ Tuubaa sëñ bi tarbiyal ko boppam ni mu bëgg ko ni mel nga xam ne nelaw yu bari day jeex lekk day jeex topp wax yu bari day jeex jëf rek tarbiye ko ci melowoow ñuy takkoo ba xasida gi gën a siiw ci tasawuf ñu xam ko ci sëñ Tuubaa yi masaalikul jinaan fii jam jam'i ma faraqahu daymaan mhm. bi ko sëriñ bi taalif ñoom ñaar a nekk nee na lu sëriñ bi bind ci tooy tooy bi la may jàngal li mu bind ba ma wattu ko mu door a bind li ci topp daana wax ni ku dul sëñ Tuubaa ma gën laa dégg masaalik ndax moom mi ko taalif ci tooy tooy bi la ma koy jàngalal boppam door a bindaat seen taxaw booba la door mm-hmm. àndin wu rafet wi dem ba sëriñ bi yor jox ko li mu yoroon mm-hmm. ànd àgg na fa ak sëriñ bi mm-hmm. njabootu sëñ Tuubaa na jox ko ko àgg na fa ak sëriñ bi sëriñ bi yar na ba gërëm jox ko àgg na fa ak sëriñ bi loolu fala sëñ bi jël na jox doom doomi sëñ Mbàkke Buso hmm. jël ci doomam jox si doomi sëñ Mbàkke Buso soxna Xadijatu mu nga wax moo tax sëñ Musaa saaka mu man mee wooy hmm. da koo ràbbali ci benn bayit hmm. dañu sëriñ bi day mbokkam te di xaritam di wéttalam di àndandoom di waayam xarit dalay xaral ci wàllam ni la am wéttal dalay wéttali foofu mën a jëm sëriñ bi yor na jox ko yar na jox ko jur na mu jox ko fab doomam jox ko soxna sa ay dara sëñ bee ko yar ba gërëm ko jox ko sëñ Mbàkke Buso soxna Faati Asan Jóob jaar na ci ku tedd ki jaar ci sëñ Mbàkke Buso soxna Moomi doomi sëñ Tuubaa la sëñ Mbàkke Buso koy rob ku ne xam na tamit ni soxna Xadijatu mi bokk sëñ Abdul Xaadir soxna May Kubra sëñ Asan lañ ko joxoon ca Xada sëñ Xasan Buso mu yor ko mooy bàyyi sëñ Fallu mi sëñ Asan Buso mi nga xam ni 1976 la des Màkkatal Mukarrama mm. ca seen aj ga te gis naa ci mbind man lu mu bindal boppam maa ci teg sama bët moom sëñ sëñ sëñ Assane Bousso mu wax ni su ma demee ba jàkkaarloog yenant bi alli sax aka neexoon ma dëkkaaleeg moom yàlla nangul na ko ñaanam ndax ba mu demee Màkka fa la des 1976 ci njabootu sëñ Mbàkke Bousso la bokk kon loolu di wane alaaxa bu rafet bi doxoon diggam ak sëñ Touba waaye xoola yii ma lay bëgg a wax sëñ maam Cheikh Anta sëriñ Touba ni mu toll ñun la ku ko jullee ñu ni sëñ Mbàkke Bousso loolu doyoon na benn émission jataay rek ñëw toog ni kan moo jullee sëñ Tuubaa bi mu génne àdduna sëñ Mbàkke Buso ñëpp a fi te sëñ bi waxoon ko sëñ bi jox ko ci ndigal mhm. moo taxaw jullee sëñ Mbàkke Buso mhm. sëñ Mbàkke Buso moo taxaw jullee Cheikhul Khadim yaakaari jàmm ki nga xam ne mooy imaamu aima yëpp sëñ Mbàkke Buso moo ko jullee waaye sëñ Tuubaa sëñ Mbàkke Buso moo ko miraas xoolal loolu nga xam li mu fi bàyyi moom moo ko séddale ku ne la nga ca war a am mu jox la ko moom sëñ Mbàkke Buso Mamor mor jaara borom sam magi mag seigne mbacke bousso ndax buñu ni seigne mbacke bousso fala taré ji won am ja de nga seigne moussa ka muni ma nga taré fa mam mor ci serigne jaara tarbiyu fa pamba muri yi dara kon fala nekkon waye moko julé ñaari ku seigne bi mësa gërem ci mag ñi day wax seigne mbacke bousso dem taxawula julé la ndax fofu la tollon wax nañ le ni la jumaa ji seigne modou mustapha al karim jambar jojo ki nga xam moo njëkk a wuutu Serigne Touba yéene sëñ Touba yépp mu matal ko ci condition yu difficile keroog bi muy génne lu xibla bi Serigne Mbacke Bousso moo ñëw ànd ak sëñ Modou Khari Bousso ak sëñ Baaxir Bousso ñoo ko wéttali bisu àjjuma la tolloon di 19 février 1932 ci la ñëw génne si xibla ji sëñ Mbacke Bousso def lool 4 mm-hmm. mars ba la sëñ Modou mu saa a teg pose première pierre ba. kon loolu sëñ Mbàkke bu solo woon bu ñu fàttee tamit ni mm-hmm. euh, li sëñ Seex a Balla gay wax mm-hmm. daf daan wax ak ñëpp ndax xam na moom li ko sëñ bi dénk ndax dafa am bis sëñ Mbàkke bu so lii may wax it maa ngi ko gis ci téere sëñ Alxaaji Mbàkke bu sëñ Moustapha sa falaa ko gisee dafa am bis nee na muy xalaat diggam ak sëñ Tuubaa ni taalibe bu nekk yi def rek ba xaal jàpp ko ni mu fonke soriyaag ni mu ci mel mu ni man est-ce que sa du ma teg mbiri soriyaag yëpp te doyloo sëñ rek mu nisar ko ci xolam wax ko suba la ko wax ngoon gi mu dem di ziyaare sëñ Touba bu mu ko nuyoo sëñ Touba ni ko mbàkke bu sa mu ni mbàkke mu ne ko sunu borom de tey jii def na lu yéemeeg man tey de tax na dani ma may na ma eh, lislaam bépp may na ma tam tasawuf gépp may na ma sharia bi attey islam yëpp ma doon jaaxle nag boobu ku ma koy dénk mu ni ma jox ko mbàkke bu sa mu téyal la ko barakallah sëñ Ablaye mu ko la ne kon moom lay dina dina dañ ko shariatul islam yi. ndeysaan moo tax Omar ñu koy ñaanal mu yàgg fi tawee. ndeysaan boo xoolee taxawaayam bi mbas ci ak moom mu bu moom. ah ku ne amna droit de. woyofal xëy lu ko neex ci islam. waaye ba mu des fii nag. ndax man kat bu moom la sëñ ni sariya ndax yàlla moo ma wax jox ko bu Buso mu téel la ko kon sëñ Mbàkke Buso faaw nu delloosi ko waxtaane ko euh, ci fànn yëpp rek euh, la sëñ Ibrahima Diop defe naa moo ko wax dani tabaxara min kullil funooni mm-hmm. min kullil funooni mm-hmm. mais dafa géej woon ci mbal wàllu funooni yëpp ci xam-xam mm-hmm. waxaasa fi mayaadiniha sab al jamii bila nee na mu amoon ci lefu yàlla yi yoon yi ñuy jaar pour rawante góoru yàlla yi mu jiitu ca ñëpp dafa amoon sappal jamia hmm. mboolem seen ñëpp la jiite di seen sang ci xam-xam gis naa ci fatawaa yi mu def yoo xam ni ilmul miraas dégg gëm ko dégg nga xam ni wàllu miraas ni mu ci meloon amu ci ñaar hmm. nga dem ci xisaab wàllu calcul amu ci woon ñaar gis naa lim ci bind nga dem ci ilmul falak xam-xam yi lay jàngal astronomie biddiw yi amu ci woon maam sëñ Mbàkke Bousso xiitu salaat nga xam dafa indi sax waxtuy julli yéeg lépp àgg na ci nit ki di ko misaal loo xam ne tey da ko daan jàng ñu naan la Parménide wala ñu naan la Euclide wala ñu naan la Diomède wala ñu naan la Pythagore wala ñu naan la théorème de Thalès wala nga ko doon jàng ci Platon ñooñu ñëpp moo leen gën a xóot xalaat savant la woon dem na ba àgg ci nit di ko nattale ba takk ndeeram fi muy yem ñu xam waxtu wi jot sëñ Mbàkke bu sa def na ci bind yoo xam ne ki montre yoo xam ni jot na jamono delloo si ko ñu xam ne moo rawoon ñëpp barakallah sëñ Ablaye xam naa ni yow moom ah, ah, da ngaa bëgg sëñ Mbàkke waaye nag xayrul umuri aw sattuha kon ay waaw ah, ñu ngi jégalu bu baax ndax suñu mbokk mi ngi war a toog sëñ fal bu sa asan ñu ngi ko war a déglu oh. xanaa di wax ni tey tamit dañoo boole ñaar ñaar yoo xam ne lenn rek la ndax lépp sëñ Touba la te bis bi Cheikh Moustapha taxaw ba indi sëriñ Touba ci biir ci ci ci jële ko njaareem indi ko Touba sëñ Bàkki Bousso taxawu ko dafa mel ni dañoo jël ñaari ñoo xam ni lenn la muy sëñ Tuubaa sëñ euh, Talla suñu xarit Mori euh, Talla sëñ Mori Talla euh, Cheikh Moustapha kuñ war a roy la mm-hmm. waaye kuñ war a indiwaat la ci jamono ci ndax responsabilité bi aju woon ci moom ci jamono mu téye yoon wi yar njaboot gi jàngal njabootuk sëñ Tuubaa taxawu leen jël seeni kaamil ba tey doo gisee njabootuk sëñ Tuubaa gi nga xam ni ñii mat nañ ñii waajur mu mu mënoo leen a xàmmee loolu nag dañoo wax ni réussite bu Cheikh Moustapha la ndax moo moo moo moo yar njaboot gépp àggaleel ñëpp seenu njàng seex sépp ànd ak moom mu téye yoon wi ba tey bis bii sëriñ tubaa ñibbi si woon tubaa njabootam di ko defal sëñ Touba waaye yaatal ko ci ñëpp sëñ Mauritala Ahibayil Khadim. jërëjëf Cheikh Anta. Mhm. mu ngi bi ci Cheikh Ablaye daane la li mu wax léegi boole se Serigne Mbacké Bousso ak Cheikh Moustapha mhm. ci benn jotaay mhm. du hasard wax na léegi batil la bi Serigne Touba euh, wuy jee suñu borom mhm. subhanahu wa taala ki ko taxaw jullee ko kooku war nañoo xam kan la oh. wallaahi wallaahi kon kii moo ko taxawu jullee ko kii moo ko wuutu oh. ñaar yooyu te lenn lu ci nekk Cheikhul Khadim soxla ku ko fa taxawal xam nga Cheikh Moustapha dafa nekkoon koo xam ni Cheikhul Khadim daf koo yaakaaroon yaakaar ja tasul déedéet mu wuutu ko ginnaawam dafa am benn bindkat bu bind lu am solo mu ne min inna min akbaril umuri suxuba xilaafatul udama mu ne bokk na ci li jafe-jafe yi gën a mag wuutu fi mag rawatina nag mag mu toll ni Serigne ak fi mu jaar ak li mu taxawal ak li mu def lépp li mu fi bàyyi ki ko war a jël jëme ko kaw kooku moo war a nekk kan kooku sëriñ bi nag waajal na ko Modou wax na ko léegi bi muy gane jamono ci Daaru Salaam fekk na Cheikhul Khadim nekk ci munaajaatam yooyu di wër pàkku Touba wax nañu ne bis biñ ko euh, fekkee fa mu nekkoon xamal ko ne ko soxna Aminta am na gan bu góor dafa tombeek euh, suñu borom wan ko leeru Touba mhm. nee na mu woo Cheikh jox ko ab duubal daan na ko gan boobu boo demee joxal ma ko ko Cheikh Ibra ah koo xam ne amagut bis bu dellu si kaw suuf sëriñ bi di ko jox hadiya man man dee su ma ko yóbbu moom it daal di jël tànk yóbbaale mais moom demee da ko dafa teqar ñi loxoom ngëbal ko ko daal ne ko lii sa way juru tedd wa la ko jox daal di koy jox basam nag daal ko bii nag maa la ko ziyaare mhm. bi nga xamante ni bii jóge na ci loolu Cheikh Xadim tudde ko turam bi Cheikh Mouhamadou Moustapha muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. mu toll ci war a jàng ndax koo xam ne dafa war a taxaw taxawaay boobu des koo war a waajal. Mhm. sëriñ bi moo ko dalal ci loxol boppam moo ko rakkam bi baax di Cheikh Amadou Fadal ak sëriñ Omar Mbacke mhm. fii ci Daaru Rahman ñu koy Daaru Naar ci kër sëriñ ron jumb ga fële leen dalale bi ñuy jàngee ba toll ci sóoratu Yaasin mu jël sëñ jox ko sëñ Ndam Abdourahman daal di jël Cheikh Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Fallou ànd ak ñoom Jolof mhm. fa la nekk ak ñoom. ba jot lettre gouverneur war a dem ci tukki bi ca la ca la ca la woo maam Thierno daal leen koy dënk jox leen jox ko jox jox ko ñaar ñooñu euh, daal di ko cay dénk lam ko dénk ci ñu taxaw ci ñu taxaw leen wax na ni sax sëriñ bi dafa leen waxoon ne soo leen mënee yore Touba nga def ko waaye su fekkente ne bi jàppandi wu leen foo leen mën a yore na leen yore waaye bu ñu tumurànke ci dara maam Thierno yor leen yor bu rafet lool maanaam teg leen foo xam ne ay dooyu papam sax tegul tegu leen ko bi bi nga xamante ne bi loolu am na mu daal di leen di jébbal euh, si ndam Abdourahmane ngir mu àggale leen seen alquran oh. bi ñu àggalee seen alquran maam Thierno jëlaatal leen boppam ngir taxawu leen ci xam ñuy jàng xam ci diggante maam Thierno ak Serigne Mor Serigne Mor Diarra borom Sàmm booba Mor Diarra ma nga Mbàkke mm-hmm. nga xam ne dañuy xëy ci kii gont ci kii mm-hmm. moo tax euh, sëñ Fallou daan wax naan euh, maag sama mag ju baax ji Cheikh Moustapha dam ñoo jàngal bañ ne ar ñu yar bañ ne nar ñu yeenu bañ ne jar wallaahi kon foofu lañu foofu la jaar ci xam-xam mm-hmm. euh, bi nga xamee ne sëriñ bi dellu na euh, waaw ci ci foofu sax kaamil bi nga xam ne sëriñ moom soi njëkk na koo bind ci loxol boppam ginnaaw bi mu wattoo mi ngi ko bind ci waxtu yi muy toll ci zahir fukki at mm. ñu yónnee ko sëriñ bi ca tukki ba hmm. ñu wax ne sax ku ñuy wax sëriñ Abdoulahi Ndour moo ko yóbbul sëriñ bi fekk mu mu jóge woon fa fa sëriñ bi nekkoon ba mu fay lañ ko jox mu yóbbaale ko hmm. nga xam ne kon liggéey Cheikh Moustapha fekk na sëriñ bi ci tukki bi hmm. bi ñu ci jógee sëriñ bi mu ñibbisee ci tukki bi nag 1902 1903 mu war a dem gànnaar yóbbaale leen mu leen yóbbaale it ngir yokk seen xam-xam ak tarbiya leen euh, wa ñu wax ne lépp lu mu amoon jot ci jàngal leen ko ci xam-xam moo leen koy jàngalal boppam waaye lu ko jot gi mayul eh, ñenn ña fa nekkoon ci naari di boroom xam-xam foofa am ay xam-xam yoo xam ne xëy na réew mi àggaguñ ci ñu koy ñu leen koy àggaleel foofa boole ceeg nag di leen tarbiya wax nañ ne Cheikh Moustapha eh, fa la demee sax ba nga xam ne eh, dafa bàyyi boppam doon daanaka ab Baay Faal ñootul dara bàyyi ba karaw gi looloo waral njañ bi looloo waral njañ bi ca la ko sëriñ bi woo ne ko waaw Moustapha li loo ci jublu mu ne xanaa bëgg a doon dong rek doon taalibe rek liggéey mu ne ko waaye yow ak nita lañ la tàmbal lañ la tànnal loolu nag moo waral Cheikh Moustapha nag daal di delluwaat watu daal di commencé waat sol ay yére yu baax war a nekk nag ci gën ci ci ci wet ci wet sëriñ bi bi nga xamante ni bii àndaat nañu ñëw fii nag ba sëriñ bi euh, ñëw njaareem ba installé wu njaareem Cheikh Moustapha xam ne moom waru koo sori ndax responsabilité maam nga wax ko léegi maanaam Cheikh dafa doonoon koo xam ni dafa dafa dafa ñemee woon responsabilité mhm. bi sëriñ bi sancee ci këram bi ci njaareem mu sanc foofu ci kër Baye Rays Baye Rays nekkoon te Cheikh Moustapha nekk fi fi ñu toll nii mu doon këram mu nekk fi te Cheikh Moustapha Mohamed dundalaat ko dundin wu am solo fan yi léegi mu nekk fa ngir jege sëriñ bi li mu ci jublu woon mooy maanaam ñàkk sëriñ bi mhm. ba nga xam ne nanguwul kenn di ñaaroog moom nga xam ni tey ku bëgg a ñaaru sëñ bi ak secret boo mën a am soo nanguwul Cheikh Moustapha xam ko doo ak doo am accès sëñ bi hmm. taxawaay boobu la taxawoon rawatina nag tubaab bi nga xamante ni bii moom moo ko doon contrôlé hmm. demoon na ba nga xamante dañuy tubaab bi soo ko soxlaatee woo wala soo ko soxlaatee bu mënta ñàkk ñëw maa ngi may ànd tubaab bi nangul ko loolu euh, tubaab bi nag wax li tax ma nanguloon ko loolu Cheikh Moustapha suñu borom da ko defaloon ñaar wala boog yu baree bari yoo xamante ne bi daf tax tubaab bi wekk ko bi ci njëkk mooy suñu borom da koo bindewoon taar boo xam ne dafa taxoon tubaab bi bëgg ko ndax taar boobu isaan bi ci topp muy fit bi mu amoon ak ak euh, caractère bi mu amoon tax ñemewu koo dugg hmm. ak xel mu ñaw hmm. àggoon nañ sa ñaan suñu borom da ko defoon eh, xelum yonent xelum yonent hmm. noonu loolu moo taxoon tubaab bi nanguloon ko loolu euh, sëriñ bi nag daan ko jëfloo ay jëf yu baree baree bari ci ay liggéey bokk na ci rek ci yi mu koy jëfloo fii marché Ocass nekk sëriñ bi gas loo na ko fa ab tool ak ab teen mhm. mu gas ko euh, bari na sax ay kilifa yoo xamante ni bii seen i jaboot bokkoon na ci ñi ko doon taxaw mhm. fii marché Ocass nekk ba nga xamante ni bii bañ koy gas ak àggoon na ci euh, maanaam xumb xumbaay boo xamante ni bii ñuy jaay caaf ñuy kii yëpp dañuy ñëw fa di fa di yaxantu daanaka loolu moo créer marché bi nga xamante ne bii sëriñ bi ñëw na njaareem Chamsuwa daal di koy wax sëriñ bi wax ko la nekk sëriñ bi ñaan ci ci suuf jox ko ne ko ngir ñu def ko fa ñu daal di ko fay sotti foofu ma ko sotti woon tey foofoo nekk marché otage bi nga xamante ne bii euh, sëriñ Fallou euh, toog na ci xilaafa bi mu yeesalaat marché ba tudd ko otage loolu nag euh, liñ ci mën a jànge sax mooy sëriñ Touba léppam day lépp yonent bi alayhi salaam mm-hmm. léppam day marché Ocass dañ ko tuddee ab marché la woon ca ca Màkka moom lañ ko tuddee léegi nag euh, Cheikh Moustapha taxaw taxaw ci wetu Serigne Touba sëriñ Touba di ko sancloo ay dëkk bokk na ci di Kayel googu euh, lenn lu ci nuyu ci ci baree bari da koo sanc. ci nekkug Sëñ Touba ci nekkug Sëñ Touba waaye ci ndigalu Sëñ Touba. bi nga xamee ne sëriñ bi dem na ba euh, fanam yu mujj mu nekk. am ay denkan nak yu ko jox hmm bok na ci taxaw njabot gi yobu jëm ji Touba bu yalla wacce ak dogalam liggey yu juma ji ak yeneen ak yeneen yo xamanteni bi taxawul taxawuloon ak bi nga xamanteni bi bii suñu borom ak sina ak dogalam ci serigne bi comme niñ ko maamul waxee xam naa du waxtu sa du may ñu dara ci waye Cheikh safa taxaw ko bam mu dem Touba mhm. ginnaaw bi nak mo wara dess nak denkan ya nga xamne mom la ko jënkoon te la ci ëppoon solo mooy liggéeyu jumaa ji ndax sëriñ bi bi mu ko way dénk daf ne ko Moustapha man day li ma war la sama borom mhm. lépp wàcc naa ko lenn rek moo ma dese mooy néegam bii ci ci tuuba ndisar naa koo pare daa di koy wax bayit boobu nga xam ne Bachar wayo waxoon na ko kenn ci xulafaawu ba kii Abbas yi di ko dénk ne ko إذا أيقظتك حروب العدا فنبه فنبه عمرا فنبه إلى عمرا فنبه لها عمرا waaw فنبه لها عمرا summa nama mu ne ko fekkente ne gi ay noon song nañ la guddi bu ci sonn yeel amr rek te daal di tëdd nelaw la ca war yëpp dana ko def amr moom mooy amr moom huway huway mu doon jàmbaar joo xamante ne bi fit ak ak ak ak ak jàmbaare gaaw xam xeex man ko loolu moo nekkoon ci moom mu daal ne Cheikh yow nag yaay sama membre daan na ko guerre bi taxaw ma bàyyee la ak moom mooy jumaa ji man nag maa ngi dem. ba ba Cheikh Moussa liggéeyee jumaa ji ba àgg lam ca tontu nit daañu ci ñëw incha allah léegi rek Cheikh bi nga xamante ne bii sëriñ bi dem na mu daal di song nag chantier boobu. waaye li mu njëkk def. da cee daj lu ne. da koo teg ci xam-xam ak xel. Mm-hmm. li mu njëkk def mooy dafa dem ci gouverneur général pour autorisation ci yu jëlee jëlee jëlee jëlee raay bi yóbbu ko Touba ndax matériel bi liggéey jumaa ji nekkul Touba te njaaram lañ ko mën a jëlee te saxaar ba nga ko mën a transporté. kooka jël ay gàllankoor teg ci wax ko ne ko ah raay de moom état koy liggéey te raay yi programme yëpp àgg na ba ouvrier yi ko doon liggéey sax ñibbi nañu. daañu ko bu war a jóge du war a jógee Dakar dem Ndar pare na du war a jógee Thiès dem Kaay pare na du war a jógee Kaay ñëwaat euh, ngeen kii euh, Linguère pare na du war a jógee euh, Jolof yooyu yëpp pare na ne ko léegi fi mu nekk nii kon loolu yaakaaroon ne mën naa ne. Mhm. Cheikh Moussa ne ko man soo amee autorisation danaa pare def. Mhm. mu daan koy jox ay conditions bokkoon na ci ouvrier yi koy liggéey lu mu néew néew day mat 1500 personnes. bu pare dañ leen di fay Cheikh Moustapha leen di dundal te ndawal la leen di dundal bis bu set hmm. ndax gas suuf la gas ak ak ak ak ak ak ak ak kii la ay gas liggéeyu suuf la dafa dafa dafa diis te dañuy doon ay góor yu mat góor ñu am kattan wax nañu ci la ko Cheikh Ibrahima joxe juróom juróom-ñaar téeméeri nit Cheikh Mahamadul Amin Baara moom dafa tas daaraam hmm. euh, ndax sëriñ bi sëriñ Moustapha bi mu jógee ci ci ci tubaab bi ba ñëw dafa dajale njaboot gépp daal di wax la fa jëlee nee leen moo ko ne yow day liggéeyal Serigne Touba rek moo mu laaj nag ñun daañu ko def. te boole la la ko Cheikh Ibra si la ko ak ko jox ak euh, ay taalibey boppam taalibey Cheikh Mouhamadou Bachir ak Cheikh Mouhamadou Bara ak ñenn ñi nangoo ànd ak moom ndax ndax tolloon na foo xam ne sax na ñoo xam ne dañu wax naan ah suñ suñ ma bu la liggéey it da da lay liggéeyloo te du la fay. nga xam ne ñu bari dañoo dellu woon ginnaaw ngir ragal coono yi ak ñàkk ne daal xalaat ne dara du génn. Mhm. ndekete bokk na ci condition yi da leen di fay léegi ñu tàmbali liggéey bi bi ñu tàmbalee liggéey bi di gas Cheikh Mouhamadul Bachir la Serigne Touba la Cheikh Moustapha tegoon foofa ngir mu koy saytu moom mu nekk ci yeneen ndax nekkul ne euh, jumaa ji rek moo doon euh, li ko li mu war a def ndax taxawu njaboot gi mi ngi ci ak euh, Eh, toppatoo donga yi hmm. toppatoo ay waajuram ñu mu war a jàngal mu di leen jàngal yooyu yëpp dafa ànd ak ànd ak liggéey boobu léegi nag ñu liggéey Cheikh Mouhamadul Amin am ci moom beneen taxawaay bu mu ci taxaw boo xam ne mbirum baatin la hmm. ndax euh, liggéey bi ñuy jële raay jële ko yëme ko lu ne dañ koy gis ci yoon lu ne dañ koy gis ci lu leen di tiital ñu dem ba nga xam ne am na yu leen di jaaxal yoo xam ne ñu ngi koy gis ci yoon bi ñu wax ko Serigne Bara Serigne Bara jox leen ay bayit ñu koy ñu koy wax bañ ko tàmbalee wax lañ doon gis mu leen jaaxal. ci ay Cheikh Mouhamadul Lamine. Euh, ci noonu ci noonu ba ñu dem ba weesu Ndulo boori Daaru Xafoor ñu wax ni seen ñu seen benn oto buy ñëw ñu ne am na oto buy ñëw de ba yàgg ba mu agsi ñu ne eh kii de oto Cheikh Ibrahima mu ngi àndoon ak suñu Modou Mbenda Fall moo ko doon dawal ak ku ñuy wax suñu Cheikh Tall. moom la àndaloon. yoo xam ne Cheikh Ibra kii bi mu agsee ci liggéey bi euh, dafa fekk benn dongo bu ñuy wax sëñ Jibril liggéey mu mu yor peel peelam la jël mais mu ko tibbee daal di ci sànni juróom-ñaari peel daal di teen daal ne seen pënd bi maa koy seen baaras daal ne liggéey bii sëriñ bu ci yebal sa bi bu ñëwee di sa sëriñ booy jur bu ci yebal sa doom bu ñëwee di sa bàyyi. <laughs> ceeb ba mu waxee loola saafonteeg ñoom. daal di wàññeeku dellu ci yitte ñu ñu continuer liggéey bi fekk na nag ay coow lu nekk ci am ñu ngi naan Cheikh Moustapha àll bi mu gas te liggéey bi xamuñu dana àggam déet bu ko àggul boo bu àggul àll bi mu gas moom tubaab bi dana ko yooyu yëpp ay ay wax la yoo xamante ni bii ñu ngi koy dégg ko bi nga xamante ni bii yàlla dogal na saxaar ki euh, raay bi àggu Touba ci février 1931 ku ñuy wax sëñ Babacar Guèye moo njëkk a dégg riiru saxaar bi mu ko déggee daal di tëb yóobu daw ci Chamsa Chamsa ne ko loolu lan la mu ne ko raay bi agsi na saxaar bu ndaw gi ci njëkk aksi di indaale ay xeer yi ñuy dëggale raay bi moo agsi daañu Chamsa daal ne ndokk ndax yàlla de suma jàpp. keroog ñu wax ne gouverneur. dafa jógee fa mu nekk ngir ñëw fekk si munaasaba wusuulu wusu wusuulul xitaar ila Touba maanaam oka kii euh, occasion boobu nga xam ne saxaar bi agsi na Touba. dafa ñëw ngir fekk si cérémonie boobu gouverneur bi mu waajee di ñëw ñoo ko Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha dafa woo waa Kër Sëñ Ndindi muy waa Kër Sëñ Madiou Sylla ngir ñu teertu ko. Mhm. wax nañ ne keroog Cheikh Moustapha dafa wax dafa dafa laaj ne euh, ana ku ko ci ku ma ku ci mën a reeloo reeloo reeloo gouverneur nee na kenn ci frère yi daan ko ah man de man de danaa ko man suñu ma wutalee caaya ju rëy nee na Cheikh ñaan ñu ko defaral bi gouverneur wàccee rek ñu daal di tëgg xiin yi noonu waa kër Sëñ Madiou di def rek. kooku daal di daal di tëb rek wëndeelu fël caay ji mu naaw rek gouverneur xàqataay loolu la Cheikh Moustapha bëggoon te loolu dafa bokk ci ikraamu dayf te yéen bu ñu fàttali moo waxoon ne man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa wax nañ ne keroog euh, gouverneur Cheikh Moustapha teral na ko ci xeet teraanga bu nekk ba loolu jàllee nag. taxawaayu liggéeyi jumaa ji nag taxaw. Mm-hmm. Cheikh Moustapha teg xeer yi ak kilifa yam ko àndal. ndeysaan wax nañ ne keroog. Euh, day sant yàlla di wax ca kaw ba ñépp di dégg kàddoom ci tàmbali bi ñuy tàmbali liggéeyu Serigne Touba mm-hmm. euh, bi ñu liggéeyee ba jumaa ji àgg ba ba àgg fi fi nga xam ne fa la ko Cheikh Moustapha bàyyi mm-hmm. ndax wax na ko Cheikh Moustapha fondement jumaa ji ba mu weesu xaaj mu dem ba kook alhaji alhaji Fall nga xam ne da ko da ko da ko liggéey ba nga xam ne taxaw na ba siggi nga xam ne fa sooroor yi tàmbalee ku baya Euh, war nañ ko mën a teg mu daal di génne ci këram googu si Daaru Xuddoos fii kër sëñ Mbàkke Madina tey lu mu génnee ba jàkkaarlook tabax bi mu xool ko xool siggi nga xam ni foo gis sëñ Musaa da ngay gis kanam bi ni mu leer mbégte mi mu daal di joxoñ tabax bi daal ne hada intibaahu amr hada intibaahu amr mu ne amr ma Sëriñ Tuubaa yeewoon ne ma may sama amr hmm. ba ma yeewee ngir yaakaar dama ci moom lii laa ko defal hmm. kon yaakaar bi Sëriñ Tuubaa amoon ci ndeysaan waaye ànd ak loolu. Mm-hmm. Euh, ci booleeg loolu. ndeysaan maanaam Cheikh Moussa dafa amoon benn équilibre. Mm-hmm. yéeme. Mm-hmm. mooy taxawu njaboot gi. nit li dal li dalee Cheikh Abdoul Ahad ba ci Cheikh Mourtala ñëpp moo leen taxawu. ndeysaan dëgg la waaye boo xoolee yar bi mu leen yar def ci ñoom xam-xam ragal yàlla bëgg sëñ Tuubaa teg seen tànk ci sunna ñoom ak Cheikh Mouhamadou Bachir ak Cheikh Mouhamadou Fallou ak Cheikh Moustapha mi nga xam ne Sëñ Tuubaa leen yaral boppam mënoo leen a xàmmee. déedéet. kon loolu. Mhm. li Sëñ Tuubaa bëggoon ci moom réussir na ko. ndeysaan. li Sëñ na ko. sëñ euh, xam naa <laughs> <laughs> waxtu wi li ci des daa bëreetul. <laughs> xam naa dinañ ñëwaat ci yow sax pour tàggatoo ndax euh, daanaka def nañ ñaari waxtu ak genn wàll. waaye nag da di Cheikh Moustapha ndax xajul ci guddi sëñ Mbàkke bu so xajul ci guddi. xalaa sëñ fàll bu Bousso rek euh, day dugg ci jikko ak melo sëñ bu Bousso du ko defee sëñ Mamoun tàggatoo sëñ ñu mën a def tour tour table ñu mën a tàggatoo ndax waxtu wi dab nañu xalaa di wax ne Serigne Cheikh Abdou Gaynde Fatma euh, di yor communication màggal Touba mi ngi topp waxtaan wi ñu koy ziare baax soxna su baali euh, soxna Nabou moom Serigne Abdoul Fatah Gaynde Fatma Serigne Moussa Mouhamed Nouwo ji ndax ku ne gis na du bis bi jotee ba guddi gi Euh, nii lay àndandoo ki taalibeem fanaane ko guddi ba bët set ca bâche ba ak ay rakkam yëpp ak mbooleem section ahibayil xadim yëpp ziare Serigne Abdourahmane moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak mbooleem njabootuk Serigne Cheikh Fatma gépp Serigne Ismaïla Serigne Ousmane euh, Serigne Aliou yàlla yàlla yokk yërmande ci moom duñ ko fàtte mukk euh, Serigne Isaaxa ñaanal bu a baax a baax nag soxna maam Fatima Marème Lo ak soxna Jobbe Diop mi ngi topp waxtaan yi moom itam ak mbooleem njabootu seex Moustapha gépp Euh, di ziare nag Serigne Cheikh Serigne Mbacke Ndiaye moom Serigne Cheikh Mariamu euh, di nuyu mbooleem ak faati Serigne euh, Mbacke Madina yëpp soxna maam buso di doomi sëriñ fàll moom sëñ Mbacke Madina moom itam mi ngi topp waxtaan wi ak mbooleem njabootu sëñ Mbacke Madina gépp sëñ Fallou Bousso Assane xam naa ni moom jotaay yi bëggoon mu yaatu waaye nag moom ginnaaw li duuf ci nag bi xajandowu ci xalaa beneen yoon mu gën a yaatu rek docteur imam sëñ Khadim Bousso sa jarbaat moom tam mu ngi ci yoon wi waaye nee nañ ko nag euh, moom moom xam na ni euh, ndigal li mu jot sëñ Omar moo tax mënatul a toog nee na ndax euh, sëñ Omar moom ku ne xam na ni moom benn bët la am sëñ Mbàkke la ko xool benn royukaay la muy sëñ looloo waral taalibe yi nga xam ni mu ñoo aju ci Gédé ak fépp taalibe nekk amoo ci moom sago ngir moom ni mu mel ci sëñ Mbàkke ñu ngi ñaan aw fanam gudd lool ziyaare waat sëriñ abu Sall sonn na lool ngir jotaay bi ñaanalaat ko yàlla na yàlla saa bu xëyee di gën a doon Baay Faalu Gédé rek ndax moom loolu rek la bëgg ziare bu baax euh, sëriñ kàbbu Guèye moom itam euh, taaral na jotaay bi moom itam ziare njabootuk Serigne Ahmadou Assane gi nga xam ne ñoom ñëpp suñuy wëllëre lañ ak Soxna Ayda Bousso ak mbooleem njabootu Serigne Mbacké Bousso gépp euh, Serigne Fallou jikko ak melow Serigne Mbacké Bousso ndax ro fàttaliku nit ak roy ci jikko rek lañ ko mën a royee ngir mën a raw ci jamono jii te jikkoy Serigne Mbacké kat roy raw ci jamono jii nga xam ne teq-teq bari na lool Serigne Fallou Bousso Assane aousubillahi mina sheytani irajim bismillahi rahmani rahim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لا جسّ عني لين يو. نعرف جسّ نيو ما كي تمبول من يخام مني. نيو يتابو جتاي بي. دي كورا فل لبو باخ باخ. دنو يتم نيو يخام نملا فك جتاي بي. سرين مور مامون جوب. سرين بلا جب بسري. أك سرين مور تالا. أكو ساس الإمام سخو بالجيم نيو يخام مني. موفي باي كولاجي. تتابل في كاردو يوم سولي يخام مني مملا دول جب جتاي بي. أجي أنا كاردو يخام دقن كفيب مي كاردو يرفت. xam naa noonu nag suñu teewaay dëgg-dëgg moom kàddu yu cant rek la yoo xam ne nii day jóge ci sëriñ Omar mhm. mi nga xam moo ne ci bopp njabootu sëñ Mbàkke Buso mhm. jëmale ko ci mboolem ñi nga xam ne ni ñoom la seqal sëñ Mbàkke waaye mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal sëriñ tubaa waaye ñoom mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal lislaam bi kàddu yi cant yi ak nuyoo bi na mu jiite ci alxalifatul am li muriidiin Seex Muhammadul Muntaqa ñaan ak suñu borom yàggal ko fi te wéral ko gannaaw bu ñu ko joxee leen ndigal ci mu dundalaat bis bi nga xam ne fi fan a juróom benn ci yoon Muharram te mooy bis bi ñuy fàttaliku Serigne Mbacke Bousso mu war a doon àllarba ñaar fukki juróom ci weeru sa euh, août bi ñu nekk. Mm-hmm. fële ca Gédé. Mm-hmm. Serigne Omar nag yabal ñu fi ñu war ko ñu teewal ko fi. Mm-hmm. ne woon bu ngeen demee nag waxtaan wi na ngeen ko bàyyi ci loxol fadilat imaam Cheikh Awa Balla Gueye ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri mi ak sëriñ Khadim Bousso mi li nga xam ne doom la ci moom war a tàbbal yeneen kàddu yi nga xam ne mooy jëm ci mottali jataay bi ñun nag mu santoon ne bu demee nañ ko santal mbooloo mi. santal mbooloo mi ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci Touba TV tàmbale ci alaaji Mbàkke yi fay ba ci Cheikh Balla Samb ba ci yow mi nga xam si Anta Samb yow mi nga xam ne nii yaay saytu jotaay bi mu sant leen cant goo xam ne am na fu mu tàmbale amul fu mu yem ci wéttal gi nga xam ne yéen koy wéttali mhm. ci liggéey bi nga xam liggéey sëñ Mbàkke mhm. ak fësal gi nga xam ne yéen koy fësal jéego xam ne moom lay dox ci gannaaw liggéeyal ko maamam jooju sëñ Mbàkke Bousso mhm. bi ñëw te mu boole ñoog lu bari ci njaboot gi bëggoon ñu teew fi am na ñoo xam ne tudd nga leen bëggoon nañoo teew xëy na tënk-tënki jamono moo tax teewuñu waaye teewut ànd nañu ñu bari ci njaboot gi mu boole ñoog sëñ xaadim mi doomam la sëñ Mbàkke Buso doomam la mu boole ñoog moom ak sëñ Baara Sall mi nga xam ne moom taalibe la ak eh, ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañu àndal fekk fii Mawlaay dem male bokk ci kër gi di yëkkati këtu xasiida hmm. ne woon ñu bu ngeen demee ngeen wàcc ci kër sëñ Abo Sall ndax mu gis sëñ Abo li muy daj ci liggéey suñu Mbàkke bi ànd koog moom waaye sax di ko daj ci liggéeyu lislaam rek la ñuy wax. wallaay bi ñu demee fi kër si ñëboo lañ wàcc mu boole tam gépp ci njiitul taawam suñu Moodu xëy ñoom ñëpp ñëw ànd ak ñun. ñëw ci jataay bi. Mm-hmm. biñ fekk fi sëñ Kàbbu mi nga xam itam kenn ci kër gi te a taxaw ci jataay yu mel nii ànd koog sëñ bi. Mm-hmm. waaye nañu fekk fi ki nga xam mooy suñu kilifa ñun ñëpp mooy si Ibrahima imaam suñu Ibrahima nga xam moom la ñuy def kilifteefu jataay bi. Mm-hmm. ndax moom ku fi nekkal suñu Mbàkke te féete fi mag yaay doon kilifa def jotaay bi ci bu dee njabootu suñ mbàkke moo tax ñu fekk si ko ànd ak moom jataay bi jox ko kilifteef gi kon ñun kàddu jant lañ doon jot li xëy na kon la ci des sëñ xaadim bu duggee dana am leen loo xam dana ko jot li xëy na li ñu ci duggee kay mooy rek rafetlu li ngeen def tey muy boole gi ngeen boole si Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ak Serigne Mbacke bu sa benn jataay ndax dafay loo xam ne ni nga ko waxee baatin dëgg sax moo ci laxasu <laughs> baatin ba nga mag moo ci laxasu mm-hmm. ndax da ngeen boole ñaar ñoo xam ne nii sëñ bi daf leen a yàgg boole. ndax dañuy wax ne sëriñ bi njabootu boppam gi daf leen a yàgg joxoon sëñ Mbàkke te ñoom dañoo dégg joxoñu sëriñ bi ma nga tàmbale ci ba sëñ bi bi mu jógee Touba dem Mbàkke Bari xam ngeen ne ñëpp ne sëñ la joxoon kër Touba gi ne ko fi toog ku ñëw nga saytu ko su fekkee la muy soxla mën naa yem ci yow mu yem ci yow su mënta yem ci moom da nga xam ne naa jàll si rek mu a jàll si Mbàkke Bari loolu ab joxoñ la woon boo xam ne nii kon sëñ Touba teel na ko joxoñ njaboot gi ñu xam ne gannaawam suñ bu Buso am na taxawaay bu mu war a taxaw mhm. loolu benn la ci joxoñ beneen joxoñ bi suñ bu Buso këram mës naa lakk ci Gédé wala ci benn dëkk mi dëkkoon mhm. keroog ba mu lakkee bagage mi lakk sëñ sëriñ bu mag bi Cheikh Mamadou Moustapha sëriñ Fallou sëriñ Basiiru la yebal ne leen dem leen yeesal kër seen mhm. kër Baay Mbàkke gi daal di wax Cheikh Mamadou Moustapha ko fa aw sàkket nekkoon na nga ko fa tegaat am néeg nekkoon na ko fa tegaat wax Cheikh Mamadou Fadi ne ko fa ab lal nekkoon na ko fa tegaat wax Cheikh Mouhamadul Bas ne fu ab téré nekkoon na nga ko fa tegaat. Hmm. noonu lañ ko défé bañ noppee Sëñ Fall Sëñ Mbàkke Buso bind ci xasida go xam ni nii gi mi ngi fi ba légui ngir jëmmal histoire bo xam ni amna ci joxoñ bo xam Seigne bi joxoñoon nako njabot njaboot gi. Hmm. beneen joxoñ bi ci mujj moy ñëw na mooy ne sëñ bi waxoon na Cheikh Amadou Moustapha njaboot gi ne bis bu Yalla diké dogalam. na ngeen ma yobbu tuba bu ngeen démé na ngeen ma tek ci loxol seen baye mbàkki loolu tam benen joxoñ la boo xam ne nii bi joxoñ nako njabot njaboot gi hmm. kon ñetti joxoñ yoo xam ne nii sëñ bi yàgg naa joxoon njaboot gi sëñ bi Buso ngir ñu xam fi mu ko féete ak lim ànd ak moom ak lim doon ci moom ñoom it ñu xamoon sëñ Mbàkke lool joxoon ko cër bu mag a mag mag boo xam la ko tam Cheikh Mamadou Moussa ba Cheikh Mamadou Mourtada ñoom ñëpp ku nekk cër boobu moom nga joxoon sëñ Mbàkke ñoom ñëpp dañ koo xamoon xam taxawaay bi amoon ci wetu Sëriñ Tuubaa moo tax joxoon ko cër bu mel noonu wax nañu daayira bi amoon Mamadou Moussa njëkk sos joxoon na ci ñaari cër sëñ Mbàkke yoo xam moom la ko ci dénkoon ngir moo koo taxawee ci daayira boobu loolu ay cër la yoo xam ne ni yàgg nañ ko seq kon kon Cheikh Amadou Moustapha ak Sëñ Mbàkke boole leen defe naa ne lu am solo la mhm. Sëñ Mbàkke defaat beneen jéegu bu am solo ci toogaayu Cheikh Amadou Moustapha gannaaw Sëriñ de radiyallaahu anhu ndax xam ngeen ne bi sëriñ bi jógee ñu bari dañoo demoon siiwal ne taalibe yi murid dañoo wuute ci seen biir ci la Sëñ Mbàkke binde woon benn lettre lettre mi ngi fi ba léegi ku bëgg gis mën nga caa dellu mhm. bindoon ko ki ñu daan wax naa ko yaa moom ndar ca ndar moom la ko bind am yu mu ko am yu mu ko ci doon leeral di leral ne ko nak murid yi mënuñoo wuute ci Cheikh Mahamadou mustapha tok jotaay Serigne Touba ndax ne ko ñett rek la fi serigne bi bàyyi muy muy njabootu bopam gi ak ñim mu bokkal Maam Anta Sali ak talibé ne ko njaboot gi nga xam ñom bokkal mamour Mor Anta Sali ñoom dañoo jang ba dañu réer té ba fi seen wayjur joggé dañ ko defal li ñi defal julit bi fi joggé moy yonal ko ku nekk jël ci sa wal kon nag ñoom mënuñoo bokk ak eh, serigne bi jël seen wal ci mamour Anta Sali bëgg jëlat wal ci bëgg momé lu serigne bi kon loolu ñoo xam nañ ko te kon ñoom duñu xëccoo ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mm-hmm. daal ne ko njaboot gi nga xam ne njabootu sëriñ bi lañ ñoo am meññeeti fa mu ne ko ñoom it sëriñ leen a jàngal bañ dañu réer te xam nañ li nekk li war sa digganteeg sa mag ndax lislaam li mu jàngale mooy boo demee ba gisatoo sa waajur mm-hmm. képp ku fay sa moom ngay xool sa bëtu waajur mu ne ko ñoom jàng nañ loolu te xam nañ ko te xam nañ Cheikh Mouhamadou Moustapha moo leen mag mm-hmm. kon duñ xëccoog moom comme xëccoo mën a fa am mu ne ko mu des ñun taalibe nun taalibe dañ ñaar rek moo mën am benn njaboot kii fii sëñ bi bàyyi dañuy jaar fa sëñ bi jaaroon te gëm nañu fa la ñuy jaar noonu la ko dañuy jaar fa sëñ bi jaaroon te gëm nañu fa la ñuy jaar mhm. boobaa dañ leen topp bu ñu xëccoo ñoom jàpp ñu ñàkk a jaar fa sëñ bi jaaroon te jàpp nañu duñ ko def boobaa tuddee dañ leen topp ngir warmaal sëriñ Tuubaa loolu sëñ Mbàkke moo ko bind daal di digal mbooloo mépp ñu yees luwaat Cheikh Mahamadou Moustapha ba tax na ñu alxalifatul am lil muridin xalif général des mourides buñ koy wax suñ Mbàkke dox na ci jéego mag a mag mm. ndax loolu moo ko bind mbind maa ngi fi moom ku ci bëgg a dellu mën nga cee dellu mm. kon boole gi ngeen boole Cheikh Mahamadou Moustapha mm-hmm. ak sëriñ Mbàkke Bousso ci bis bi mm-hmm. njabootu sëriñ Mbàkke Bousso amaan dañ ci yëg-yëg bu mag a mag am ci cant gu rëy rëy rawat na nag ñii ñu ko seqal mi sëñ Modou Mamoun kàddu yi rafet na lool wax dëgg yàlla sëñ Mori tàlla kàddu yi rafet na lool saxaw imaam saxaw ba nag ni nga ko waxee moom noonu mhm. buñ sañoon daanaka <laughs> da nga koy bàyyi rek mu wax suñu bàkki ndax xam gum ko xam ak yàlla fasaaxagu maanaam leerul làmmiñ ngi ko yàlla may ak mën a leeral sëñ laaj jubbi si moom waxaale wuñ ko suñu borom daf koo may loolu ñëpp nangul nañ ko ko may na ko ci mokkal may ko ci gëstu may ko tam ci kàddu gu leer mm-hmm. moom it muy ko xam sëñ Mbàkke ci mbind mm-hmm. xam ko ci gëstu xam ko ci ay jëf mm-hmm. xam ko ci jàngat ko muy jàngat mag ñi moom it bu ñu sañoon dañ koy déglu muy wax lu bëree bëri waaye li wax léegi rek ma na li ñu bëgg lépp mënut jàllandoo moo tax kon ñun suñu dañ koy jëmee ci kàddu sant sant daal lañ doon def ci turu sëñ Omar mi nga xam ne nii moo ñu fi yabal ñu jëmmal ko fi teewal ko fi teewal fi jëmmam xëy na am na ci kàddu yoo xam ne ni sëñ Xaadim mais dana ci ñëw ak sëñ Mbàkke ci wàllu màggal gi bis bi ni muy demee mhm. ak yeneen kàddu yi nga war nañ koo tënk ci dunduk suñu mbàkkee mhm. suñ xaadim lañu waxoon ne moom moo ko war a jàllale mhm. kon daal kàddu yi cant la woon ak ngërëm bis bi nag kon ni ko sëñ bi waxee bisub ñaan la imaam Seex Awa Balla ñëw na ci defe naa ne li am ci réew mi ñu ko ay jafe yu bari pexe yu nekk jël nañ ko kon li des pexe mi ñu nanguwut jël te mooy pexem ñaan te jullit ñaan mooy ngànnaayam moo tax lu xew na ñuy jiital ñaan moo tax sëriñ bi dafa wax ne bis bi bisum ñaan la barab ba te gerte tam day barabu ñaanukaay ndax daañu wax ne si Abdou Khadir di wax na ne barabu suñu mbàkkee loo fa waaye ñaan te nanguwul sa pësteef la. képp ku fa dem te yóbbaale fa pësteef lépp loo fa ñaan suñu borom dana ko nangu. Mhm. daanañ wax ne sëñ ma Cheikh Mamadou Fall daana wax ne képp ku màggal si Touba te demoo Gédé yaa ngi mel ne ku dem Màkka te demoo Madina kon Gédé dafa am wàcc wàccuwaay ci yoonu murit mm. saxaaba Balla Gaye wax na nañ ko imaam saxaaba Balla wax na nañ ko sëñ Mbàkke sañce ci ndigalu sëñ bi ak sëñ Mbàkke ma fa tëdd kon bis bi day bisub ñaan mm-hmm. sëriñ bi nag wax ne na ñëpp ñëw ñu ànd bokk nekk benn di ay julit nekk taalibe sëriñ Tuubaa delluwaat ci sëñ bi tawassul ci moom ñaan ci suñu borom ci barkeb bis boobu ak barkeb jëf ji sëñ Mbàkke defoon te mooy mottali yéene sëriñ Tuubaa ndax wax nañ loolu fës la wax nañu bi mu ànd ak Cheikh Mamadou mu Fadal ak Cheikh Mame Cheikh Anta ñu dem Màkka wax nañu ci dundam ci njëm ay jamono sëñ Tuubaa da ko waxoon ne ko danaa ànd ak yow bis ñu dem siyaare ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na xasida goo xam danaa ko fa jàng nga di ko dégg gan xasida la wax nañ ne xasida gi nag teewloo guñ ko waaye wax nañ ne xasida la boo xam wax na ko daal xattaaba xattaaba xalbiya waaw xattaaba xalbiya xat xaaqa niim xat xaaqa niim ngoog almuhim li am solo daal mooy xasida goo xam sëñ wax na ko dina ko fa jàng mu di ko dégg wax nañu nag bi sëñ bi wàccee bi liggéey nag te sëñ bàkki gisul loolu te gëm na ne ma lépp lu ko sëñ wax dina ko gis xawoon na am ak jaaxale tuuti moo tax nee na bis dem na toog ci barab yonente bii di siyaare yëgoowut ak Cheikh Mamadou Fadil Cheikh Mamadou Fadil nekk ci geneen wet sëñ bàkki ne ci geneen wet kenn yëgu ci sa morom sëñ bàkki ci biir siyaare mu dégg sëñ fàllu di jàng xasida goo nee na keroog dafa ko def xaal ju réy réy joo xam ne nii fàttaliku lu réy réy ci sëñ Tuba kon jëf jooju mu defoon xam ne mottali yéene sëriñ bi la woon radiyallahu anhu mm. waaye itam jooxawaale juróomeelu ponk ci lislaam bis boobee moom la ñuy fàttaliku bis bu see mooy bis bi ñibbisee jóge ci ñëw muy tolloog bis boo xam daal daanaka mën nañu wax ne da caa daje ngërëmul sëñ bi ngërëm loole nag sëñ Omar dafa wax ne képp koo xam bëgg nga ci cër ba nga xam moom la sëñ Tuubaa séqoon séddoon sëñ Mbàkke Buso nee képp ku ca bëgg nee na nga ñëw ci bis ba boo ñëwee dana ci bu jox la ndax moo fi nekkal suñ bàkkee te mën na jàtti bu am waxoon nañ ko jot bu ñëwee muy kàddu yi cant ak ngërëm ndax nañ ko yëpp wax dëgg yàlla ñu koy ànd ak yéen kon ñu ngi sant waa Touba TV yëpp ñëpp ñu fi yëngatu ñoo xam ay taskati xabaar lañ ñoo xam dañuy am émission di ko fi jàlle mhm. jàlle ko ba ci kilifa gi Alaaji Mbàkke Fay sëñ bi ñaanal leen barab bi gën a yokk gën a gën a law ba fi ngeen bëgg ma àgg fa mu kawe si seen jort santaan nag bokki taalib yi nga xam ñoo ko fare Ndakaaru tey dox jéego yu am solo mm-hmm. ci liggéey suñ Mbàkke bi tàmbale ko suñu Abu Sàll suñ Alaaji Kàbbu yi nga xam ñu ngi fi mm-hmm. ak yeneen njabootu suñ Mbàkke yi xam ñu ngi féete fi mm-hmm. suñ Ibrahima suñ Abu Moussa ak ñu yeneen ñi nga xam ci njabootu te féete fi ñëpp ca bis ba di ñaan àgg ca ni nga xam ne nii loolu la suñ bëggoon ko koy joxe bis yi mel noonu bu ko defee liñ ci ñaan am nañ jot ci rafet nañ jot ci ne sunu borom dana ko nangu jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam sëñ Fallou Bousso Hassane euh, jotaay bi am na solo xëy na nag euh, bëggoon nañ sëñ Xaadim Bousso moom sëñ euh, moom sëñ ah moom sëñ Basirum sëñ Jaaña yëkkati ay kàddu bëggoon nañ tamit sëñ Xaadim imam moom sëñ Jaaña moom sëñ Gédem sëñ Jaaña docteur imaamu New York moom tam tàbb ci jotaay bi waaye nag euh, euh, yaakaar naa li luuf ci nag wi xajandoowul ci cin li te inamal amalu bi niyaati seen yéene sëñ bu Bousso asan du waxee waxaale na ñëpp ndax euh, jotaay bi daanaka def na ñetti waxtu waaye sëñ Mbàkke nag day mawridu zaman boo xam ni moom du jeex kon nag sëriñ bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéggulu loolu bu baax di wax ni sëñ Mamoun yow lañ bëgg a jox nga jox ay ay ay ay ay ay kàddu tàggatoo bu defee sëñ imaam sëñ euh, Mouride Tall tëj sëñ Fallou Bousso Assane xam naa ne kon tëj bi kon da koy jox kenn ci doomam yi rek kon ñu wax programme mu màggal gi sëñ Ibrahima Bousso ñaan euh, bëgg nañ nag bala ñoo yëkkati jotaay bi euh, sëriñ Moulay dem wax ci wolofalu sëñ Mbacke Bousso su doon ñetti bayit sax mu jàng ko sëriñ Ibra Sarr moom itam taalibam sëriñ Khadim Naar moom sëriñ bàkki Soxna Lo moom itam yëkkati su doon ñeenti bayit wala juróomi bayiti xasida ndax nag euh, anzilu naasa manaaziluhum euh, nit ku nekk doo ko joxee cëram rek euh, ngeen mën a jubóo <laughs> sëñ Mamoun Diop bismillah kon ñu def ay kàddu tàggatoo yu gàtt rek waaw waxtu bi daanaka dab nañu dëgg la ndeysaan mhm. xanaa santaat rek ndeysaan ci canti sëñ Fallou Bousso Assane nun noo ngi amoon yéene ndeysaan ci màggal gi ren ci jàngale yi ñuy def at mu ne ñu exposé ci kenn ci mag ñi ren sëñ Bakke la yéene woon a jàngale waaye ni jamono tëddee xat-xat yi e, ginnaaw bi ñu xam ne waajtaay wi xëju fi e, nu jàppal ko yidde waaye loolu la ñu yéene woon e, sëñ Mbàkke la ñu yéene woon a jàngale ren ci màggal gi waaye yoon jeexul mu mel ni li mat jàng daal ci Cheikh Moustapha ci boo wuutoo te yoon wi soxla ko fi mu ne lool mooy taxawu ab taxawaay tàmbalee ko ci njaboot gi mm. xam nga sëriñ bi dafa bëggan ku yar njaboot gi ba noppi du kenn bëggul ku leen merloo bi di iyaali bi laa bukkaay loolu yombul nag waaye yàlla dimbali na ko ci eh, bu ñu waxee rek Serigne Abdou Lahad eh, tuddoon nañ ko fi ci tàmbali bi eh, mën naa yóbbaale ñu bari doomam ji wax sëñ Abdou Samad bi mu koy sancal kàbb gay bi mu koy yóbbu kàbb gay da ko ni kàbb gay gii ma lay indi sama mag ju baax ji sëñ Moodu moo ma fi indi wat ni ko ba ma fi indi nag nii la demee daa yónnee kàbb gay ni nañ ma fa wutal kër dama fay ñëw biñ ñëwee di ko kër ga noppi na man mii la woon ne ma nan fa ànd bi nu yeggee bu mu nuyoog mbooloo ma dañuy mbooloo ma Abdoulaat mii tax ma dajale leen fi dañ leen Abdoulaat mbooloo mii tax ma indi la dal di ni bu leen ko fi ti di jëw ci man doomi sëñ Tuubaa eh. dal di ni ko ni Abdoulaat mbooloo mi luñ bëgg da nga ci taxaw waaye nee na bañ duggee ak man ci biir nag bañ duggee ak man ci biir daf man ni mbooloo mi luñ la sant te mënoo ko naa ko yëg ni ni ni njàngale moom nag loola bu ko boole woon ci biir mbooloo ma danañ lu ma tële ñu ñu bàyyi ñu romb ma far dem ca moom oh. waaye daa dégg ba dugg ca biir mun ma teg mënoo ko nag naa ko yëg <laughs> nee na di ba ni Abdoulaat nit ñi nag ma nees na leen a moom sol leen ci benn mbedd ba sol leen ci benn néeg waaye ni ko bu ni ko ni ko mbeddum teraanga rek lay doon cey ni ko Abdoulaat nit ñi nag boo leen moomee ba sol leen ci ab néeg du ñëpp la ñuy jëf leen teel ni ko dangay taxaw ci bunt ba tànn ni ko koo waxal déggaat ko bàyyil du àndandoo dëgg la boo meree koo gis muy ree bàyyil du àndandoo ni ko dina ci am ñoo xam ni nag jikkoy takkandeer la ñu yor duñ la féete fenn waaye doo mën a tàggoog ñoom <laughs> noonu nag xeriñ googu <laughs> euh, kenn par kenn ci ci ci ci doomi sëñ Tuubaa yi <laughs> euh, noonu la leen yaay ndax si ñun euh, xel meere ah. xam nga alaaji si li doy waar moom la ñu ah. jeexale mooy dool xalifab sëñ Tuubaa te loolu sëñ Mourou Seye nga ko nettali bi ñu ci gëstu yi ah. nee na booba euh, sëñ Modou dong yi ne ci tool yi bay laa ci tool yi euh, boo leen fa fekkee ak sëñ Modou jukkib alxuraan bi ci loxol di joor li ak jukkib xasida bi ci loxol càmmooñ li ñooy tolloo te fu waaru toll mu ànd ak ñoom te boobu mooy xalifa bi nee na bu wàccee ci tool yi ba del si Taïf ñi mu fiy fekk nuyoo rek diggante bu toll noonu ñu noddu timis nee na boole caag ñam wu ñu togg ci kër gi moo koy séddale Euh, dëkk bu mu yendu bu ñu fa toggee ñoom moo koy séddale waxtu ne moo koy jógite ci jumaa ja bu tàkku saadee téere bu waaye mu indi mu tëral la ko <laughs> loolu te te muy xalifam sëñ jubaa kon taxawaay yooyu ndax sëñ bi ay ab taxawaay la bëgg sëñ bi daa taxawal euh, du du du attaché yuux bokk bokkul ci li nga xam ni moom moom la sëñ bi doon woote mm-hmm. euh, bu ko defee yooyu day day valeur yoo xam ni. Mm-hmm. dafa mat a lool lool lool surtout nag. ndaw ndax am na solo waaye dem bàyyi ku baax. ko ndax yëf yi sëñ bi ci boppam nee na ci Mbàkke Kajoor am na ay jamono euh, bu ñu sottalee euh, du ñu ma woo euh, te bu ma yeexee ñëw du ñu ma ne kon yëfi xëyul xëy neex mm-hmm. waaw kon nag bu fekkee ne yàlla dogal na nga nga tombe ci mu neex war ngaa xam li ko neexal mooy da dana am solo nu yëgaat sëñ bi te jox ko war ma te xam ni lislaam ju leer nañ mm-hmm. sëñ Tuubaa dëgg gu weex tàll la lu taas bokkoo ci ndagg la l'otage bokkoo ci eh, daan na wax ni ci <laughs> moom la yite yi ni maa ngi leen di dénk mm-hmm. eh, juróom yent yii bu ngeen ci saxee da ngeen am nooflaay bu àdduna ak muccuk àlaxira mm-hmm. na ngeen ragal yàlla mm-hmm. ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon di wax loo man tey jël loo moom asalaamaaleykum wa rahmatulah baarakallah sëñ Maamun li baax lépp yàlla jox na ko sëñ Tuubaa moo ko waxal boppam xusnu mawaahibal kiraami turra la laa taarrubin kafaani charra kon moom li baax lépp yàlla jox na ko sëñ Tuubaa waaw dëgg la sëñ Ablaye Diop Bichri waxtu bi daanaka dab nañu mhm. te li ñu bëggoon a wax yow euh, euh, euh, murit boo gis muy dem ab xolam du sa sëñ Tuubaa nekkee mhm. suñ Mbàkke bu sa dina ca nekk dëgg la waaw waaw ah, te su dee su dee dëgg la faaw dina teewlu sëñ Mbàkke ba tax na bi ngay wax ci sëñ Mbàkke dem naa ba gis ni nekkatoo ndax ni ngay waxee Euh, euh, euh, bëgg koo bëgg sëñ Mbacke bu so waaw loolu gis naa ko ci biir wax kon loolu lu am solo la te ku bëgg sëñ Tuubaa waa nga ko bëgg kon nga joxe ay xam naa ay sant rek ak woote kon nu waajal ko xam ni ki ñuy wuy ji mooy ñu ngi wuy ji sëñ Tuubaa ndax ku làq ngërëmu sëñ bi la ci wàll yëpp sëñ bi gërëm ko laaj nga léegi sëñ Fallou Hassan ci ay jikkoom waxuma la sax ñi ci réew mi waaye ñi ci bitim réew nangu nañu ne yàlla def sëñ Mbacke am benn naaru gànnaar bu ñuy wax آه، السيد احمد السنقيتي مي واي سيغن باكي بوسو داني الى سيد قالله رب الورى طفلا وحلاه بالاداب اجمعها كحلا <laughs> وصيره بحرا محيطا بكل ما فقار وبدرا في سماء العلا يجلى امام الهدى بحر العلوم الذي دعي بمباك بوسل ممدوح بين الورى كلا من فتن سنه المختار احيا بعيدما اميتت باهواء قد تغزق سبلا bana masjidan lillahi احسن bunyatin yuaddi huquqallahi in bata aw billah ضلا koka lamu wax rek teunkel nañu seigne bakke bu su ci melo yep boy set ko xamni bi mu gané aduna rek mhm. la ko yalla genn ci lepp lu waru ci nga xamni ci lu war rek la nek bimu démé nak ba tollu ci mak tollu ci ñeen fukki atam mu taxaw ci taxawaayu sunna rek musu ko wacc di jëm jo xamni ni sunu borom def ko géeju xam-xam mhm. muy jëm jo xamni dindi na réeraange mel ni tey biddiw bu fenk ni muy leerale gox yépp noonu la meloon mm-hmm. di imaam bi nga xam ni yàllaa ko jiital ci kaw islaam te mu jiitoo ñépp ci ak njub di jëmm joo xam ne fekkoon na sunna si yanantu bi alayhi salaatu salaam ñu demoon ba ray ko ngir topp ay ñal ak topp bànneex ak bakkan mm-hmm. mu ñëw dundalaat sunna ba ñépp xemmim sunna mm-hmm. tabaxoon jumaam ju mag ca gede su xëyee wala muy gont mu ngi taxawal waxtu yàlla kon bii bi bii xasida bu rafet rek mhm. doy na ci xam kan mooy sëriñ Mbàkke Buso sëñ Musaa Ka tam tënk yooyu naar boobu wax moom ci tëralinu grammaire arab moom ci la jikko sëñ Mbàkke Buso yi dani ko xafat nga bidaa ba rafaa nga na nasab nga fardan ba sukkoon nga jann xam nga xafat mooy atte bi tax ñu maas baat ci suuf kasra ko mu ne ko nag yow bu fekkoon tey bidaa lu ñu sos ci ginnaaw yanant bi amul cës laay ci alxuraan amul cëslaay ci sunna amul laay ci borom xam-xam yi maandu yi ñu sos ko loo xam ne ci bakkan lañ ko teg yow ba nga ko fekkee mu tege laalu ko ay da nga koo xafat mooy da nga koo maas ci suuf amoo ci soxla rafaa nag mooy masque bi nga xam mooy masque wu loo nga xam day yëkkati yow nag sunna da nga koo yëkkati yow sëñ Mbàkke Bousso nasab nga far fardan mooy masque yat farata moom da nga cee taxaw temm mosoo ko wàcc ba sukkon nga janna moy masque nek dekk nga bir aljam waaye nak su bamba don nga mana def man out nat ak man out xam nga nooy <laughs> nuru melo niir ñun gum nuru seigne toba niir yow rek ya ko top ba mën ko wut dal ni mooy feexlul madi dotul am mu fi'lul madi moy verbe bo xam dafa passé su ma raaytu aqaka ams gis na sa frère demb bi may wax raaytu dama ko gis ba lopi lolou lu am kon c'est le passé <laughs> nak moy nangam dina ñëw ëllëg tey wala futur présent wala futur mu ni nag kon sëñ Mbàkke Bousso verbe la boo xam ni conjugué nañ ko ca passé bul ko làmbati ci jamono yi dootoo gisati ko mel ni sëñ Mbàkke Bousso kon nag li nu war a xam mooy ku sëñ bi fonkoon ndax fi mu ne jomaay Touba mhm. sëñ bu so moo bindal sëñ Touba autorisation bi mu ko ñaane nasaraan bi 1926 man am naa lettre bi moo ko bind ci loxoom sëñ Touba ko dicté mbirum tubaab bi tuuma yi nu sosaloon sëriñ bi sëñ bi moom la woo moo bind lettre bi ñu yóbbu foofa du mat a xam la mhm. teeñ tanoor bi mu sonalee njabootu sëñ Tuubaa yi njëkk a seex ca Bawol ñu sonal leen lool moo def ak moo def benn fatwa bu rafet jëmale ko ci teeñ tanoor wax ak moom yee ko wan ko ni yaa ngi tooñ ay gor yaa ngi jëmale ci Tuubaa loo xam du la jural mukk jàmm tey ëllëg mhm. daal koy delloo si sëñ Mbàkke bu soo defoon lool mhm. moo bindoon wax ak ñoom galandu wax ak ñoom Blaise Diagne ku ci ne wax na ak yow dénk la. déporté sama turam ngir rek xam masuule bi mu am. maam Cheikh Anta bi ñu ko déporté ci kaw tooñ. Mm-hmm. moo ñëw wax ak euh, làmmeñu sunu borom. mooy tey mooy seetal maam Cheikh Anta. Mm-hmm. ni as gor la soo xam dañ koo tooñ. Mm-hmm. waaye léppam yàlla ay la ak yonent ak sunna kon daal jëmm la joo xam ni. ku dundaloon mbokk gi la. taxaw ñëpp ñu boole kook nag. jàmbaar jii nga xam ni. defe naa bu nu delloo ca sëñ Moussa Ka rek la mu wax ca sëñ Modou Moustapha. ca xarnu bi bi mu way doomi sëñ Tuubaa yi te njëkke ko mm-hmm. ni taaseeri njool aminata yaa donn njool aminata Tuubaa di sunu madinata yaay weer wi tiim waa xarnu bi moo neex a woy neex a taas ngir xarnu bii amu ci maas la dali fii ba weesu faas yow la ñu jébbal xarnu bi ndax loolu doyoon na mu ni raayoo ngëneel wa yaa ko yor yaa teggi tuur ba daw ba sar mm, ngir fasu ngir naaru góor ak fasu par rawantiwuñ ci xarnu bi ndax loolu doyna muni dedet, mbollem si wa kibar ya tax ñu tabbi ci saxaar ba wacc touba ngeen ci gar noppal ngeen ci xarnu bi ndax doyna na dedet rubina yaagi wala ngal nuy nuy ni nan ni kaw sarak dootu dootunu tapatu sayan ja jëf defat ka xarnu bi ji ko taxawal ya te mu nax say ñu na la na matal ja jëf defat ka xarnu bi noppek gorek talal ndijor la moomee Saalum ak Kajoor ku laaj ma jox la lay sa muur musta gàntul xarnu bi kon kooku daal yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm di sant ñëpp ndeysaan jërëjëf sëñ Ablaye mbokk yi euh, sëñ Ablaye Diop Bichri kenn amul sa fay jërëjëf euh, di wax rek ni euh, dégg naa ci mag mu ni Serigne Mbacke Bousso daa waxoon ni képp ku mu njëkk a wax ni sëñ gaawaan ñibbisi na ma ñaanal la njëggalu suñu borom ëllëg tinu la ci yàlla dégg naa góor gi ko wax njaareem la jóge mu ni ko noo tudd ko diw mu ni ko ëllëg dina la ñaanal njéggalu yàlla kon kooku engagement ah, yaakaar naa ni boobu engagement ah, du ma ni dégguma fu mu ko waxaatee waaye yaakaar naa boobu la ku ñu ko wax ah, dégg naa am na ko mosu ñëw ni ko yow de dégg nañ sëñ Mbàkke ni nga def seexante defu kenn mu ni ko ndax ni ma seex def kenn def na ma oh. kooku looloo waral sëñ gaawaan jëloon doomam ju naan soxna Mareema Mbàkke jox ko ko Euh, kooku soxna Mariam Mbacke moom sëñ Ablaye Diop Bichri uh-huh. yaaye mooy soxna yaa Yaande Fall mu uh-huh. dammel amari Ngóone mi ñu rey ci gaar bi ci Tiwaawan waaye keroog bi ko sëñ Gaawaan di jox ba mu jur caatum sëñ Mbacke bu suuf sëñ Mbacke tudde ko Moussa Kazim uh-huh. di bàyyi sëñ Abo Moussa mii nga xam ni day sëtub sëñ Gaawaan tey di sëtub sëñ Mbacke bu suuf lu yéeme da cee am mag ñi dëkk Darou Salaam dañoo wax ni keroog sëñ Gaawaan daa wax sëñ Mbacke bu suuf ci jumaay Gédé ji wax lu yéeme ñu dañoo julli tàkkusaan ba noppi fekk ci bis bi sëñ Gaawaan dafa jël ñaari camion lu ne mu def ci teraanga jël ay nit jébbal leen sëñ Mbàkke jox leen ko wax ni sant naa yàlla tey bi ma amee sët boo xam ni sëñ Mbàkke mooy juróom ñu ko yow nag xam naa ëllëg lañ nga fa man xam naa ëllëg lañ nga fa man teraanga yii maa ngi ñaan bépp murit ëllëg bu la bëgg wala mu sopp la rek bu mu gis dara lu koy naqari kon kooku te ki ko ko seereel ki ko ko seereel mm-hmm. ah, ah, ah, Sëriñ Tuubaa defar na ko te noppi na ci moom wallaay waaye ñoom nekkuñu woon foo xame ni euh, lii lii xew ci jamono ji mooy par parloo loolu loolu nekkul woon ci Sëriñ Tuubaa defar kon loolu lu mat a jàngat la mooy mag ñi ku ci nekk sa bopp nga doon gis sa bopp mm-hmm. Sëriñ Mbàkke nag moom euh, dafa dafa dafa dafa bëggoon Sëriñ Gaawaan Sëriñ Gaawaan bëgg ko nag mm-hmm. sooy wax xaritu Sëriñ Mbàkke bi njëkk moom da nga naan Sëriñ Gaawaan dooy wax dooy wax xaritu waaw ànd nga màkk tamit mm-hmm. xam nañ ci lu wér ndax sëñ Yaas Faale moo ñu yar te sëñ Yaas Faale sëñ Cerno sëñ Mulaay la dem laaj ko ko moom mi ca àndoon sëñ Mulaay ni ko maak sa baay la sa maam woo maa dem sëñ Mbàkke dem sëñ Fall hmm. loolu lu ko gën leer amul waaye nag dafa bari loo xam ne le champion sax da koo titré sëñ Yaas dafa wax ni hmm. waaw sëñ Yaas dafa wax ni sëñ Mulaay ko ko nekk hmm. daana ko màggal moom <laughs> nee na sëñ Cerno la àndal sëñ Cerno tudd na ko doom nee na mu àgg ne ko lii de day bëgg a réer Bousso damaa bëgg nga nettali ma ko sëñ Mulaay ni ko toogal maak sa bàyyi la sa am woo ñoo dox lépp bala moo dikk ñetti weer lañ def nettali ko ci yu bari loo xam ne mënu su ko nettali hmm. kon nag euh, yaakaar naa ni loolu ñoom benn lañ woon daal sëñ moor Fatim Touré tam bi muy dem màkk waaw mooy mooy lettre bi waaw euh, sëñ Mbàkke bu su bind gis naa yeneen lettre sax ku mhm. ñu am suñu soxna suñu soxna Xadijatu mhm. moom la moom la bind wax ko ni bu ñëwee kooku na nga xam ne suñu jarbaat la ah, lépp lu ci war ci moom ni ngeen ko taxaw bind na fa kilifa yu baree bari ba àgg na sax di wax ak kilifa ni Euh, cofeel gi nga amoon ci man ba diggoon ma ngan maa ngi lay xaar ñëwagoo ci ngan gi xam naa ay jafe ba bagage yu mu fa bàyyoon sax moom la ko yónni mu indiwaale ko yëpp war na rek relation yi amoon mu ngi ñuy topp moom tam jotaay bi ak soxna aji suñ sëriñ euh, di ziare bu baax sëñ baaram sëñ bàkk sëñ baaram sëñ bàkki soxna loo moom itam mi ngi topp jotaay bi ak euh, suñu sëriñ boobu nga xam noppal na sëñ Moustapha lool ak mbooleem waa Ahibahil Khadim yëpp ñu ngi leen di ziare ngi joxe ay kàddu tàggatoo rek sëñ Moulay Waaj mën a wax ay bayit ci sëñ Mbacke Bousso sëñ Ibra Sarr mën a wax ay bayit xasida ñu mën a tëj jotaay bi ci kàddu euh, sëñ Omar Bousso jërëjëf Cheikh Anta mhm. ñu ngi leen di sant bu baax di doole ziyaare bu baax sëñ Fallou Hassan ñu ngi ziyaare bu baax di la ndokkeel bu baax a baax ci kàddu yi ak euh, bis boobu ñuy waajal di sant bu baax Cheikh Abdoulaye Diop ci kàddu yi rafet yi euh, jàngaat na ci lu am solo wallaay ndeysaan sant bu baax sëñ Cheikh Mamadou Mamoun waaye fi ñuy tëjee rek mooy mhm. bis bi nga xam ne moom la ñu jëm muy bisu Serigne Touba. Mhm. faaw ñu taxaw ci tuuti. Mhm. bis la koo xam ne ni nga xam ne tu salaa noonu la daan defee saa yu jullee ba noppi. Mhm. ñaan googu mu daan ñaan suñu borom. allahumma inni inni as'aluka an taj'ala xayra amali xawaatimahu. wa an taj'ala xayra ayyaami yawma alqaaka fii. noonu la ko Serigne Touba ñaane ci mawaahibu rahmaan. maa ngi ñaan suñu borom. nga defal ma bis sa jëf yi gën ci samay jëf muy li ma lay mujj a jëfal waaye bis bi gën ci samay bis muy bis may dajeeg yow bis boobu nga xam ne sëriñ bi ci la daje woon ak sunu borom moom la ñuy màggal muy màggalu sëriñ Tuubaa hmm. te sëriñ moo ne moo waxoon ne wali jaalil mawta raxatin wa mafraxatan hmm. min kulli shahrin wa karbin daqa yàlla hmm. kon noflaay la ak ay mbégte ci moom loolaa tax ñu koy Cheikh Moustapha nag moo ko woote woon ci ndigalul sëriñ Tuubaa ba mu ko wootee xëy na fa mu jaar yëpp ko wootee woon mooy ñu màggal ko ci jàng alquran ak xasaay euh, def ay asgar euh, togg ay ñam joxe ko jaamu yàlla yi te yàlla rek tax hmm. mu wax ca nag ne juboo nag suñu borom ci ne hmm. képp ku fanaan Tuubaa guddi googu ñu jéggal te defee ko ni ñu ko ni ko ni ko sëriñ bëggee hmm. ci bàkkaar ni bés ba nga gënee jamono ci sa way jur loolu dafa am solo ñu ciy woon ak euh, bokki taalibe yépp mu wax tam ni képp ku ciy ñëw te yàlla dogal nga may bëgg a jox hadiya waaw bu fekkee da ngaa dajeeg mbokk mu amul paas bu ko indi jox ko ko jox ko ko mu ñëw ci ndax addee ji soxalum li ma soxal mooy ngeen taxaw fi ngir ñu jéggal la ngir ñu jéggal la kon Cheikh Moustapha dafa waxoon ne moom soxlawul addee ji ñu koy ñil waaye ruux yi la soxla ruux yi la soxla àgg na ci sax ne boo demee ba nga xam ne seet nga pexe yëpp amoo benn moyen boo mën a ñëw Touba bu guddi ga ba jotee seetal xal wa jëm tubaa nga topp ko dox ko loo man te yéene ci sa pas-pas ndax njëgal la yéene ñëpp ngir yëpp ñëpp ñëpp yéene ñëpp yërmande suñu borom ndeysaan euh, ci loolu nag ñu ciy woo jullit yëpp képp kuy jullit waxuma dama jël la taalibi mi waaye képp kuy jullit hmm. ñu ngi la ciy woo yërmande gi mu Moustapha yéene woon jàmm moom la yéene ñëpp hmm. ci loolu section Dakar am na benn comité boo xamante ni bii maanaam ngir barkeeloo wax Cheikh Moustapha jam waxoon te sëñ Ablaye wax ko léegi hmm. bu fekkee ne da ngaa nar a ñëw addee jo jooy am di ko indaale gis mbokk mu bëgg a ñëw te amul paas jox ko ko hmm. ñu taxawal benn comité boo xam ne dañuy jàppale nit ñiy dem te te amuñu paas hmm. comité boobu taxaw na ba ba ba luyee fukki bus yoo xamante ni bii pour pour ñin ñi la ñu leen di ñaanal suñu borom euh, yàgg leen koo man lool ñu daje ca ngërëmal sëriñ bi ñaan suñu borom may ni ñu fekk ko ak jàmm te defe ko na ko borom bëggee dañ daje ci ngërëm Sëriñ Tuubaa ñaanal suñu buntu ci Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Moustapha suñu borom yàggal ko amiin amiin amiin gëral ko te sàmm ko amiin amiin lu eh, mu lay ñaanal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye di nuyu tey ndokkeel bu baax suñu bokk yi nga xam ne ñoo jógee Gédé ndeysaan eh, ñi ngi am nañ mbégte lool lool tey jotaay bi jàng nañ ci lu am solo lu rëy rëy la walaay rëy rëy walaay ndeysaan eh, maanaam alaaka yi nga xam ne moo doxoon ci mag ñi walaay ndeysaan dañ koy war di dundal dañ am nañ ci xol bu sedd lool lool lool lool ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yóbbu ñu ci bis yooyu te may ñu ñu defee ko ni ko borom bëggee te lépp ñu daje ca ngërëmal Sëñ Tuubaa amiin amiin amiin euh, di ziyaare bu baax euh, sama bokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal ahibaul xadim ñu sol ci diinil qawim oh. di ñaan suñu borom subhanahu wa taala liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal islam di ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom nangul ñu ko tamit day ca ngërëmal si wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin barakallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Mori Talla euh, Serigne euh, euh, Moulay xam naa ni nga def ñetti minute rek ci wolofalu sëñ Mbacke Bousso Serigne Ibra Sarr jege si wax ñetti bayti xasida moom itam rek su ko defee ñu jël kàddu gi nga xam ne muy mujj muy sëñ muy muy muy sëñ sëñ sëñ Ibrahima wala hmm. incha allah. Euh, incha allah kon kon kon kon ki nga xam ni mooy mooy mooy mooy mooy mooy tëj kàddu gi sëñ xaadim wala sëñ Ibrahima wala sëñ Fallou euh, kuñ ci am digal rek mu tëj kàddu gi nga xam ni mooy euh, bàyyi ko ca Serigne Omar moom Serigne Abdoul Khadir buso moom Serigne Mbacke Bousso sëñ Fallou bisimilah. waaw ah, bisimilah. kon ñoo ngi sant rek sant santaat ñëpp rek rafetlu jataay bi. xëy na gën a jubbanti tuuti rek ci njabootu suñu Ibrahima Guèye ñoo xam ne njaboot gépp lañuy sant xëy na dañ koo jaara turu suñu àbb hmm. waaye ñu koy tàmbalee ki ci mag ba ci murit mi nga xam moo fi teew hmm. boo suñu àbb ak ñëpp daal njaboot gi yëg nañ seen taxawaay hmm. ci bis bi ak nañ ko yàgg ànd ak ñun kon ñu ngi leen di fàttaliku baax a baax ci bis bi kon daal xam naa kàddu sant ak ngërëm rek la euh, sant na ñëpp gërëm ñëpp ni ko ñëpp ñaane rek bis yooyu daal ñu àgg ci te buñ ca génne lépp luy tënk-tënk ak jafe-jafe ci réew mi suñu borom jële ko fi te jàpp nañ ne bis yooyu mën na ko waaw mën nañ ko gëm nañu mën na ko tam buñ ko sellalee lañ ko waxee jàpp nañ bu ñu jógee danañ gis lam ñuy mën a jural kon ñoo ngi sent ñëpp ci ñaari bis yooyu di ñaan àgg ceeg jàmm dugg ceeg jàmm génn génn ceeg jàmm ak salaam te yàgg fee teew yàgg teew plateau yu mel nii yéen ñi koy taxawee tam suñu borom gën leen a dëgëral amiin ba ngeen gën a mën a taxawee liggéey bu mel nii ndax communication ku nekk xam ne dafa am solo ci liggéey bi rawat na tasaare njàngalem sëñ bi te ko imaam fi jàll yëpp waxee am na lu baree bari loo war nañ ko gën a leer ci njàngalem bi ba nit ñi gën a xam nañ koy dundee ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha ma wax ci kàddoom ne ñun dégguñu sëñ bi dunduñu sëñ bi loolu na kon defe naa am na ci rôle bu mu bu am solo boo xam ne nii ñu ngi leen di ñaanal suñu borom gën leen dëgëral ba ngeen gën a mën a taxaw jotaay boobu noo sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. barakallah mu mel ni kon euh, euh, jërëjëf euh, sëriñ Fallou Bousso Assane waxtu wi dab nañu kon xalaa sëñ Moulay dangay ngay yëkkati lu tolloog ñetti minute rek ci wolofalu sëñ Mbacke Bousso ñu mën a del si tëj jotaay bi ndax li duuf ci nag bi daal xajandowu ci bisimilah. xalaw lu leen ma dellu marsiyaati bari uloo wisaayi bulaayaati ndeysaan ko baa dinam di siiwal say mbiram sëriñ Mbàkke Buso dox di woote ka gëroo maqaama ba muy xale la teela man istiqaama way jële la ma sibtu balaay sax way ma demal njàmbe nag juwaab sax fu may jëlee di géej gu fees guy duusu te dàq xelam dàq suukar tey buusoo sëriñ Mbàkke busoo fu may jëlee di ku ma waat ci yàlla di ma dénk di ma laat ci fu may jëlee bi ku ma aat ci yàlla te di ma dénk te di ma way seexu bakke nañu faati balla way jooylo la waaju xam jayil mbar mu na boo na bu na bee baatinam na ñëpp def ni ñu màggal sëriñ Mbakke Buso dox di woote ka garoo maqaama ba muy xale la teel man istiqaama sam rek ragal yàlla dëdd na dunyaa ji loolu moo dib dunam mës la yu bon ya sëriñ Mbàkke Buso déglul ma wax la lëf ci yoo xam ne tuuti laa ci xam bu mbar mu nëbboo nëbbu la jàpp saa yaram na bee ko baatinam du dox di wootee ka garoo ma xaama ba muy xale la teel man yi xaama du faale xar baax soxlawul karaama baayu sëriñ Mawlaaya Buso baayu sëriñ Asan Buso baayu sëriñ Moodu Buso maami sëriñ Omar Buso du dox di woote ka gëroo ba muy xalee la teel a wan yaqaama Buso du faale xar baax soxlawul karaama naka mu jóg soo bu ci istiqaama du faale xar baax soxlawul karaama mu bu ci istiqaama samog ragal yàlla te dëddu duniyaa moo dib donoom mës la jëf su jooti alquran su jooti julli moo tax ba daar ba leer ga jolli jàngal na waa këram ba kenn du jàng seng këram dafa jàkka seng dem jàkka jàkko taxanoo ju wuute masula fay faan masul di wuute sëriñ Mbakke Buso dem jàkko jàkko taxanoo ju wuute mosul a fay faat mosul di woote addi sëñ Tuba mosul di woote mu Moulay jërëjëf mbokk yi li moo nekkoon tey spécial waajal màggalub Daaru Xuddus le 28 euh, suñu kër maam Serigne Mor Thiam Dogo di taalibey Serigne Serigne Cheikh Gaynde Fatma soxna Xadima Ngara Thiam suñu yaay bokk ca Ahibaayul Xadim section bu Jurbel ñu ngi koy ziare bu baax a baax ak mbooleem section bu Jurbel yëpp euh, di ziare mbooleem njabootub Daaru Xuddus gépp di ziare waat Serigne Ahmadou Mokhtar ñaan suñu borom guddal fanam nuyuwaat Serigne Cheikh Madina Serigne Cheikh Bombali moom moom nga xam ni maama moo ko tudd tuddee ko maamam maam Cheikh Anta yàlla fi yàgg lool te wér di sëtub Cheikh Mouhamadoul Mamoun waaye di sëtub Cheikh Moustapha yàlla fi yàgg lool te wér ziar Serigne Abdourahmane Mourid Sadikh bi moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma di koy dundub taalibe ak ay rakkam yépp nuyu seen taaw bu baax bi Serigne Moustapha Mouhamed borom nuwoo ji ziare waat Serigne Omar Bousso xalifa bi nga xam ni benn référence la muy Serigne Mbacke Bousso benn bët la am muy Serigne Mbacke Bousso sëñ Mbàkke rek la bëgg bëggaatu leneen yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko euh, euh, njabootu euh, Baye Abou Sall ñu ngi jël ak cant ak ngërëm sëñ aboo Sall mi ngi jël ak cant ak ngërëm di ko sant alaaji Mbàkke yu fay ndax moom nee na daal ku koy lebal lebal ko ci sëñ Mbàkke waaye ku koy fay fay ko ci sëñ Mbàkke ndax moom la moom rek la am moom rek la bëgg kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba mi ngi koy sant di sant Serigne Cheikh Balla Samb nee na bu baax ak di sant mbooleem équipe technique bu Touba yëpp santaat Serigne Kàbb ak njaboot gi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu jox sëriñ Ibrahima Bousso mu ñaan يا جملة قد زلزل